ca bal ba tàkk na bàkk ba jib na bët set tàmbali na ma leen nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen jox seen wàcc waaye kenn ku nekk si yéen fa nga nekk ma fekk la fa maa euh, ma nekkat ngir fas yéene na jox li tax ngeen di nekk ci bëccëgu talaata 25 janvier 2022 ma leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax dalati leen jàmm sur la première matinale digitale du Sénégal bi nga xam ne Seneweb TV ak seneweb.com moo leen koy jagleel comme ni ñu a li a nga xam ne moo di seen émission matinale bi léegi bët set bët set atina amat nañu mbégte teew fas yéene jàkkaarloo ñoom ngir jukki li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi ñu xëyee ñaari ponk bokk na la gën a fës ci wàll yi moo di lu ñëwal wàllum déclaration bi nga xam ne jot naa am ni ki démb dala bàyyeekoo ci Yewwi Askan Bi mu di lu ñëwal wàllum élection gox dañu doon amal ci dimanche bi ñu weesu beneen ponk mooy lu ñëwal ci bëccëgu tey jilee Sénégal war a jàkkaarloog bi nga xam ne moo di Cap Vert fan la wane di mujjee ki gëtam waaye tam lan lay wàcc ci wàllu ñuusa li bokk na ci li gën a fës ci xëtu yéen kaay ñi xëy amet Babacar euh, ci kanam tuuti dinaa dellu siwaat ci yow ñu daal di koy yaatal gannaaw bi ma nuyoo Euh, Mañoon dara mi ñu indilaat gan gu am solo comme ni mu ñu ko tàmmalee saa yu bët set euh, dooree Mañoon. jërëjëf Ameth nuyu naa la nuyu ñu ma bokkal plateau bi ainsi que ñi nga xam te ni ñoom ñuy bàyyi xel actuellement en direct ci suñu plateforme digitale comme ni nga ko jinjee noonu la demee comme ni ñu ko baaxoon def saa su ne tey Sadikh Top nekk membre ci SN comme Pastef moom la ñu nar dalal tey ñu nar a waxtaanee nag ginnaaw wala sax ëllëg yi li nga xam ne moo nekk. Euh, maire yeewu askan yi nga xam te nii quand même fal nañ leen ci yenn ci gox goxaan loolee ci kam incha allah daan ci ñëw ci anam bu mu gën a yaatoo Mouhamed Ndoye merci beaucoup euh, Sadikh Top moomu sax justement moom laay nuyu monsieur Top maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau bët maa ngi lay fay Ahmed di nuyu ñi nga xamante ne laa fekk ay dara Aïda damen ak soxna si ak euh, sama turandoo bale Babacar di nuyu sénégalais yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ci suba si à travers Seneweb ayca merci beaucoup ci kanam tuuti dina ñëw comme ni ko ma ñoon waxee ànd ak moom ci waxtaan bu yaatoo yaatu euh, damay daal di nuyu ki nga xamante ni mooy soxna Aïda benn moom it teew na ci plateau bi nanga def. Euh, euh, sa verre bi danaa jàpp sax. verre bi ah, moo tax xale yi di di jalouser. non jàpp bii dafa ànd ak yow. <laughs> <laughs> comme d'habitude <laughs> alors euh, maa ngi nuyu euh, suñu mbokk internet yi euh, di di amati mbégte bu baax a bokk ak yéen plateau bi di nuyu tamit sa Sadir Top mi nga xamante ni ñëw na fekk suñu ci matinal bi également di leen wax bienvenue ci kanam tuuti dinañ indi point politique bi dellu si ci local yi bi la yoon nag ñu def benn sëgg bu ndaw ci ci jeunesse bi ak ni ñu génnee affirmé wu ci li nga xamante ni moom moo di joŋante yi ay ja ca kanam tuuti dinañ ci ànd ak ay dem benn ma daal di nuyu rek soxna Aïssa Thiam maa ngi lay nuyu di la ziar. non euh, dafa seexlu xam nga balaa dafa seexlu àndul ko sant maa ko njëkk a waxal sama bopp si rafet na ah, rek. merci beaucoup mais loolu cet sama problème. <laughs> yàlla baax na. balaa du pour ñëpp de. <laughs> xam naa bul gis bul gis ci élection locale yi sëriñ yëpp ne weexee gañe ñëpp sol weex rek nga yaakaar ne yooyu da war a mën a sol weex demewul noonu de weex. du pour ñëpp de ay dara ñoo bokk <laughs> ah, yi dañoo tase sëriñ yi boo xam ne dañuy liggéey bu ñoom sa dif tom ñëwee ci ñoom fay leen ah, waa bennoo ñëw fay leen bu ñu ah. delloo benn avance yëpp la jël ku ne ñu ne la yaay gañe de toute façon dina am ku gañe <laughs> yàlla baax na am na nuyu naa la nuyu ñi ma bokkal plateau bi également nuyu suñu invité di koy dalal ak jàmm ci plateau bët set di leen nuyu yéen tamit ami internet yi nga xam ne doo leen tàyyi benn yoon euh, jàkkaarloog ñun dañuy seetaan fu bët set tàmbale bët set tàmbale te na honnêtement di tey la euh, bés bu dee bi Sénégal ak euh, waa Sicap Baobab ci kanam tuuti 16h incha allah. Aïcha merci beaucoup ca dinañ ñëwaat ci jotaayu plateau bi waaye. dañuy delluwaat fàtte naa nag fàttali ne tey dafa nekk bésu màgg di bés bu nga xam te nii dañuy fàttaliku génnu àdduna Mamadou Dia nga xam te nii ku marqué ah excellent loolu loolu loolu bés bu mag na ci ci ci ci ci taarixu réew mi moom du jàmm yi nga xamante ni kenn dootu ko fàtte mhm. xam naa ci kanam tuuti dinañ ko may rek benn ponk mhm. euh, daal di ko waxtaane euh, ànd ceeg Satir Top baabaka li ay dem nar nara waxtaane ci kanam daanaka la soleil yéeni suñu jantum réew moom la def mooy jàngat bu yaatoo yaatu ci li nga xamante ni moom mooy wat gi ñu jénn di ñu wax li nga xam ne moom mooy mbóot ya ak njàngat yi nga xamante ni moom la ci ku nekk war a am loolu nag mu ngi ñëwaat ci genn ak wet ñëwal li nga xamante ni moo di scrutin bi ñu doon amal ci dimanche bi ñu weesu Yewwi Askan bi am na beneen taxawaay bu mu a dala wàcc ci beneen wet ak am waaye lu daal na la nga xamante a wét boo mooy que am na urgence boo xamante jot naa taxaw bu ñu war régler ci boobule kuréel leneen loo xamante moo ci am ci génn ak wàllu moo di wàllu Sénégal bi nga xam ne moom tam daanaka décombre bu PDS la moom tamit dara am benn toolaay boo xam ne daal dinaa suufe lool waaye nag lu ëpp ci wàllu itam na am beneen taxalin boo xamante ni bu yees la moo di ñu bare bare ci ndaw ñi nga xam ne nga xam ne moo nekkee ci na ca bokk ci diwaanu njaboot gi ñu jënn waaye di ñu xamal ni tit mbéj mi nga xamante moo dal waa bennoo mu ngi tax ñu miir ba léegi noonu la ko dala fësale mu dala jàpp ne gaañ yi lu ñuy wooye maanaam moxoñ lañ dala def ci genn wet bokk na ci professeur Moussa Diaw moom mi nekk analyste politique dala jàpp ne Macky dafa dala investi ay candidat yoo daanaka ñu ci bare bari échec moo leen gënoon a jege loolee moo tax tamit lu ci ëpp bu fekkente ne jot naa jellu si ci nekk ci biir Sénégal mënees na ko fësale ci yenn yi nga xam ne fa ca mel ni ca diwaanu Ziguinchor la Ousmane Sonko noonu la ko dala fësale ci diwaanu Dakaaru Barthélémy Dias moo tam kenn ku ci nekk la mu jot na ko amal waaye tam wan ko ci kanamu Sénégalais yi bokk na ci daal li nga xamante ni moo gën a fësal li nga xam ne moo defet bi ñu dala am waaye leneen loo xam ne jot na cee dellu moo di wàllum coalition yi nga xam ne jot na am ci wàllum présidentiel tax sax ñu dala suspendre li nga xamante moo di seen ay mbir waaye tam sanctionné ki nga xam moo di Macky ak ña ma jot a àndal ba léegi keneen fu ko xoolaat moo ni xëyee bokk na ci nag mu cité ci ñaar ñi nga xam ne ñoo gën a fësee ci wàll wi moo di ka nekkee ci diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ka dala wulli ca bureau ba nga xam ne fa la dara wote du kenn ku dul Idrissa Seck mi nekkee fi nga xam ne moo di parti kenn ku nekk ci ñoom dafa daloon a lalleku ca làng ga mu nekkoon dala ñëw dal di ràcc basangam fi nga xam ne moo di ci benn bokk yaakaar waaye loolu de taxul benn yoon mbir mi dala sàcc ba tax nag nga xam ne moo di Walf Quotidien dala jàpp ne bu yees di wane ne fu mu la transhumance moom boo moytuwul dina jeex ci langum politique bu Sénégal askan bi ñu ngi commencé di sanctionné di wane seen bopp ci wàll wi loolu nekk beneen taxalin boo xam ne jot naa moo ko yóbbee ji la jafe-jafe waaye tam tànn nga xam ne jot na ko amal ci ñenn ñi nekkee ci yenn gox yi ngir nekk ay candidat ci élection yi amet yeew yi mu ngay yeeweeku di gën a naaw bennoo mu ngay tasaaroo di gën a diig ki nga xamante moom mooy wàllu buñ ko wàlluwul dana réer mal témoin yéene noonu la ko dara fësale ndax moom jot naa am comme ni ko réewum njiitu réew mi dala woote waaye nag ki émerge gi yoon nekkul benn yoon bennoo boo yaakaar waaye du kenn ku yeewi askan bi ñu dala

socialiste nii mel moo ko dala fekki ndax fu toll nii daal lu bare bari ci li ñuy wane mooy que ndaw ñi jël nañu en li nga xam ne moo di pouvoir bi waaye tam lu jëm ci wàllum politique loolu ko dara fësale moom bés bi le jour dala ñëw nag ci genn ak wàll ka fi nekkoon jiitu réew ci lu toll ci fukki at ak ñaar di maître Abdoulaye Wade moom tamit gaañu jot nañoo jàpp ne fu toll daal mbir mi jeex na tàkk ci moom faaw mu

daanaka fa amoon waaye Abdoulaye Seydou Sow moom jot naa wane li nga xam ne moo di boppam eh, ci génn ak wàll mu mel ni Kaffrine moom tam am na beneen taxalin boo xam ne ko yaakaar jot na ko fa am waaye gars yi daal fi ñu nërmaloo ba ñu kaw moo di ci diwaanu Ndakaaru waaye tam bokk nekkee ci biir Sénégal am mett l'observateur borom gët yu yaatu yi ñoom dañoo xëy tey teg ko ci président de la République Macky Sall di ñu wax ne tànnee fii boo ottul moo ko jural njumte di bokk na ci li ko jural jafe-jafe yi nga xam ne jot na ko am diwaanu Fatick bokk na ci li nga xam ne Macky Sall jot na ko ñàkk ak ñi Ba waaye nag ñeenti ci ay yi nga xam ne ñoo di benn bokk yaakaar Dakar tamit dal cee bokk recette yi nga xamante bi jot nañ ko am ci lu jëm ci wàllum victoire ak yoo xamante ni ci ay ne ci ay commune la waaye nag loolu daal ci yekk ci benn côté gaa ñi dañoo déclaré ni ki démb daal naan ñoom lu toll ci maanaam fanweer ak ñeent ci ay commune daal jot nañ koo gañe waaye nag lu bare bari jot nañ jàpp ne ba ndéegi ñoo ngi jiixi jaaxate boobu moytul mën naa ñëw ci seen ak wet mu dal rek dooleeku ci li nga xam ne moo di lu am ci wàllum ndamte buñ ko xayma nee seen avantage day nekk amet jàppoon moom mooy Idrissa Seck sa capital di raay turbine yéene kaay loolu la teg ci bu doon ne ab dóor la mënees na jàpp ne kaw lañ dala def box mooy ab feebar la ma dala ñàkk bureau de vote ba nga xam ne fa la voté ci diwaanu Thiès loolee nekk loo xam ne daanaka lu ñuy fàttaliku lay dala doon waaye ci génn nag wet ndax Yewwi Askan Wi dal gagné ba noppi sax foofee nga xam ne moo di ci capitale du rail ndax beneen lu yees tàq moo fa dala am moom la tribune quotidien ne dala bokk ndax la mu dala wane daal dalul xel te joxul ki nga xamante nii moo di Macky Sall dalum xel ndaxte li mu doon séntu ci moom mooy ci wàllum électoral mu am loo xam ne dina ko wàllu assisté waaye foofee ci diwaan diwaanu Thiès gars yi dal nañ fa daanoo du nekk loo xam ne du avantage te loolu mën na ko jural tamit ab sanction am site quotidien yéen kaay moom ci benn wala des ba léegi di ñu xamal ne euh, malgré dóor yu métti yi leen dóor ñu ngay bañ ne deewaguñu noonu lañ ko dal duppee ni ki ci seen ak makkaan bu benn bokk yaakaar daal fa la ñu dajee daal di yëkkatee kàddu yu bari lool te wuute indi ab càmbar indi ab doxalin dellu si waat ci ay chiffres yoo xam ne daal bari na lool te wuute lañ ci gën a fësal nag moo di El Hadji Amidou Kassé mi nga xam ne moom tam ministre conseil ci jege a jàpp mooy département nee nañ daal lu toll ci fanweer ak ñeent ñeent fukk ak ñett waa ñeer fanweer ak ñett yi daal fanweer ak ñaari ñoom ñoo ko dara gañe ñoom ñi nga xam ñoo di benn bokk yaakaar li ni mel dëgg la waaw wala déet jot nañ ci yokku ne tendance yi tamit jot naa boole lu toll ci ñett juróom-ñeent juróom-ñaari yoo xam ne fu ñu toll ñu ngi xaarandi te loolu nee nañ daal buñ ko boolee dina nekk fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ne ñoo ko gañe kon mu mel ne ñoom seen jëm bopp jot nañoo jàpp ci Sud Quotidien ka ni lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu majorité daal kenn amul ko ku dul ñoom ñi nga xam ñoo di benn bokk yaakaar seen doole ba léegi fa mu nekkoon jógewu fa waaye ñu jàpp ne lu bare bari war nañ ko mën a delloo si waat ci ne mu gën a fësee ngi rek gën a wane li nga xam ni supérieur waaye ne moom mooy raw gaan moom moom jot naa dellu si waaye ne majorité présidentielle bi daal jot nañoo wane seen bopp Benno Bokk Yaakaar jot naa étaler li nga xam ne mooy day chiffre yu bari lool te wuute li ni daana indi ay jeexi jaaxa ci ñenn ci askan bi bu fekkee sax jot nañoo nangu yenn ci ay bërëb ne jot nañ jot nañ koo nangu waaye ci genn wet tamit dañuy wax naan ab tontu du forox ndaxte xam naa du yàgg dara dina dara ñëw ndaxte ñi nga xam ne ba di yenn ci victoire yi am ci diwaanu Rufisque waxi naan Nimzat Mbacké ba nga xam ne moo di ci diwaanu Thiès ndax ñoom jot nañoo jàpp ne ñi nga

ci que fas yéene jot Sénégal dala am nag li nga xam ne moo di yeewu gu mu fas yéene amal ndax ginnaaw match de poule yi nga xam ne jot nañ koo jongante ñu bare bari ci askan bi dala jàpp ko ni wane wuñ ci loo xam ne dalul na xel benn but benn victoire ñaari match nul loolee moo yóbbee juróomi poñ dong ya ñu am yóbbee leen sax ci bopp classement xam ne jot naa wàcc ci wàll yi mooy kenn daal a am a am ci ñu diggante Cap Vert lu ci bare bari askan bi di ko dala xaarandi boo xamante ni daana dala joxe confiance waaye itam dal ñi may ñi nga naka mën am surtout ci li nga xam ne moo di titre Coupe d'Afrique des Nations atum 2022 leneen lu gën a am ci wàll yi kenn ku bokkoon ci ñoom daan ànd ak mu di Cheikh Ndoye moom tam nekk nga xamante ni jot na àddu ci wàllu wi dala jàpp ne faaw ñu dal rek maanaam dem cherche ji ànd ak nga xamante ñoo di waa Cap Vert ci wàll yi waaye ci geneen wàll tam leneen ci kaw Guinée ginnaaw ni ki démb boo làmbatoo ba daj suñu làmb rek nga wax ma tey lu mu la mu daldi làmbol moo di ko làmb fenn ci yaramam muy métti mu di Balla Gaye 2 moo dem ngir faju ci ci wàllu yi moom la suñu làmb quotidien dala xëy ne delluwaat na ay fan bi nga xamante nii daanaka jot naa amalu rinkum ci digganteem ak kile di bombardier loole nag ngi rek dellu si ci li nga xam ne moo ko doon métti am li nga xamante ni moo daf certificat médical boo xamante ni mooy nekk ne waneen na moom wér na peng ngi rek mën a amalaat ci ay jogante ku mu wàllum saytu bi ni mel daal nekkul moom kese moo ci am li nga xam ne moo di ab toppatoo waaye ñeneen ñi nekkee ci biir Sénégal di waa CNG tamit ñu ngi koy topp ngir xool ndax lépp mojj wala de amet li ma gën a fës ci xëtu yéen kaay ñuy xëyee. Euh, Balla Gaye moom xanaa saa yi ñu ko dóoree rek Babacar mu ne daa feebar daal di gàddaay. xam naa ne day lim koy dul def baritul de moom daal di ma gis ci ay defet yépp bu pare wala bu noppee faaw ñu gis ci defet wala ñu dégg ci feebar wala ñu dégg ci. Euh, loolu maanaam nga jëlee defet reconnaître am nga defet ne danga am ay faiblesse dama wuti ji force. jàmbaar dawul wala wuti doole non vraiment daa feebar waaw bon damaa feebaroon non en fait li papaam doon wax tamit na ko bàyyi xel quoi. mbaru hmm. olof day bëri lay. léegi mu bari lay de. defet bu ñëw bëri lay quoi defet bu ñëw mu a daa feebaroon. <laughs> ba ko fi ah, fàttali naa maa ngi fàttaliku day taay ko fii ëmm seen téye di ko rukk mel ni kuy. Eh, dëbb ci la gàddaay ba yi jël ko monté ko teg ko ci sareet bi bagage bi gàddaay euh, euh, bu yàgg si moom wala feebar. Ah, mais ci la dëkk. ba mu defee yi ah, ma gis mais mais mais bu fekkee daa feebar bu mu jël avance yi. affaire bi kenn dafa seetlu damaa feebar du ma jël avance yi di bëre bay daanu ba naan damaa feebar. waaw fekkee da koo dab waaye jël avance yi dem bëre ba pare daanu naan takkal victoire fekkee da koo dab yaa ngi na koo dab ci mën nga jël avance ba war a préparer combat am. réew mi bu jëlee avancé feebar bi. Euh, yéen ñi ay mbëru olof ngeen de yéen ak benn bokk yaakaar <laughs> yam fi mu toll nii bëri ngeen lay lool lu ma teg ngeen layal ko. <laughs> ayca merci merci beaucoup Babacar ci li nga xam ne moom mooy ëtt xëtu yi balaa muy ñëw laaj benn laaj Sadikh Top ci équipe nationale bi damay nuyu sama gars yi euh, parce que c'est moi moom nee na moo njëkk a laaj tey ku ko nuyuwul du baax euh, donc ah Babacar nee na euh, Babacar nee na bu ma laaj laaj boobu Sadikh naa bàyyi ba mu ñëw ci ponk ringo bi donc laaj lu merci beaucoup yow tamit maa ngi lay nuyu bu baax a baax Sirifo jaw maa ngi lay nuyu di nuyu moor ñaan Mor Niane Massayer Bey Farabinu Diop Teresa Morales Silva muy naa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Dóor waar kontaan naa ci yow Aline Gueye niki noonu Naar Fall Mouhamed TTG Ah, ki nga xam ne mooy Samb Al Amin Baara Serigne Saw yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen ci ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ah, bët set di seen première matinale digitale préférée mais cadre si chaise maam bi nii chaise maam bi laa yor dafaa nga yëge ko wax. c'est c'est bien dafay tax nga am nga am euh, réflexe euh, flexion parce que xam nga euh, du ñu entraîné ñoom daanaka donc moo tax chaise bi dafay baax yenn saa yi nga yéege ko wàcc di pomper di def di def lu la neex. <laughs> yàlla <laughs> <laughs> loolu lañ ma bëggal. ay ajo Babacar bu fekkee noppi nga ñu daal di ànd euh, ak Kamadou Mané mi nga xamante ne moom mu ngi doog a teew euh, ñu dem xooli ji ñaari ponk rinkum yi ban moo ci njëkk Ahmed ponk rinkum bu njëkk bi dañuy fas yéene waxtaane ak li nga xam ne moom moo jot am ni ki dimanche ñi génn ci élection gox goxaat yi waaye nag ti ki démb également foofee nga xam ne moo di ci siège bu APR ñenn ña fa nekkee jot nañoo yëkkati seen ay kàddu ku ci mel ni Seydou Gueye ak nga xamante ni moom moo nekk moom tam ministre conseil ci wetu Macky Sall ñi teewlu Seydou Gueye dellu si waat ci plateau bi bu yembee département yi toll na ci ñeent fukk ak juróom benn ba fii ñu toll nii tey fanweer ak ñaar yu wóor ñu ngi suñu loxo ñu am ci juróom-ñaar yoo xam ni ñu ngi koy atte te yoon ba mu jublu mooy ci ñun lay si donc dina nekk fanweer ak juróom ci département fanweer ak juróom ñeent mooy boo ko jàppee ci capital régional yi maanaam dëkk yi gën a rëy comme Ndakaaru comme Kaolack comme Ziguinchor seen lim bu tolloo ci fukk bu ñu ko nangoo war nañ mën a jàpp ni ñeent rek ñooñu ci muy Ndakaaru fukk ak ñeent ci rëcc muy Ndakaaru muy Ziguinchor muy Diourbel ak kawlax li ci des yépp mi ngi ci biir kër gi te fii ñu toll nii ci liy tepp-tepp jóge ci communes yi la ca ëpp mu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar wala mu nekk ci loxo mbokk yi nga xam ne dañu yoroon seen yoon yi bopp te bokk ci kër gi ba tey donc bu ñu bëggee tënk ci tegtal yi ma jot a joxe rek war nañu mën a jàpp ni dara majorité bi bennoo am ci biir réew mi mi ngi fi nekk ba tey war nañu mën a sax weesu moowu majorité ba tàbbi ci hégémonie bu bennoo bokk yaakaar mi ngi fi ba tey ma joxaat ñetti firnde boo jëlee diiwaan bu mel nii Fatick euh, moo doon addu ni ki démb ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkee ci Benno Bokk Yaakaar ni ki démb jot nañoo daje fa nga xam ne moo di ci siège bu Benno Bokk Yaakaar loolu nag ngi dellu si waat ci lu ñëwal résultat yi nga xamante ni jot na am kun ci genn wet bu fekkee ne ñenn ci askan bi dañoo jàppoon que ne ñu bare bare ci ñoom dañoo jotoon a ñàkk li nga xam ne moo di seen ay élection wala la majorité jot nañ ko ñàkk ñoom ci benn wet jàpp nañu ne lu ci ëpp presque bu ñu xoolee ñoom ñoo ko gagné ci biir Sénégal mais ñeenti ci ay bërëb kese la ñu nanguwaale ne am nañu fa defet moo di ci diwaanu Ndakaaru bokk ci diwaanu Ziguinchor euh, Diourbel ak fa nga xamante ni moo di ci diwaanu Kaolack kon ñu mën a jàpp ko ne même ci biir foofu sax ñu ñàkk li nga xam ne moo di ville yi jàpp nañu ne yenn ci ay communes yi nga xam ne ñu fa nekk sax ñoom am nañu benn wet également mais question bi ñu sept recours yi nga xamante ni ñu ngi jàpp ne euh, par recours mais yegg buñ fa leeragul ñoom jàpp nañu ne buy tranché ci seen faveur lay tranché donc da ci bokk fu ci mel ni au niveau de Thiès ñu jàpp ne euh, ak Rufisque ba moytul coow dina fa jib seen diggante ak ñi nga xam ñoo di waa Yewwi Askan Wi parce que ñenn ci waa Yewwi Askan Wi jàpp nañu ne au niveau de Thiès nañ ko mais ñoom waa benn bokk yaakaar tamit dañoo bëgg accaparer wu moo tax comme ni nga ko xoolee ci Vox Populi aussi jot na ko xëyee ni gaa ñi dafa mel ni tentative ëldëp mu ngi waaj a am ci li nga mooy résultat yi lan la war a mën a juri ëllëg ci li nga xamante ni moo di lu tukkee ci wàllum résultat yi ndax mënul indi ab coow ba nga xamante ni benn côté nuyoo woon na ci wàllum campagne bi même ci jouru élection yi mais également aussi ci lu jëm ci wàllum cappaandaw bi. c'est-à-dire par rapport li nga xam ne moom mooy sorti waa Benno Bokk Yaakaar démb. jërëjëf euh, li ma ciy njëkk a wax mooy damay fàttaliku waxu Babacar Justin Ndiaye ci Seydou Gueye li mu wax du dëgg demul sax bay nekk dëgg te dinaa leen jox ay firndeel parce que daa lu leen réer ñoom wax na Dakar euh, Ziguinchor Diourbel Thiès waxuñu ko ñoom li tax waxuñu ko mooy jàpp nañ ne dafa nekk en situation contentieuse peut-être boo xamante ne leeragul mais génnewuñ seeni chiffres ñu dañ koo génnee teg ko Thiès lii moo fa am trois communes Thiès Est Nord Ouest Thiès Ville ak Thiès département chiffre yëpp génnee nañ ko jox leen ko ne leen ngi noonu génnee leen fi leneen lu dul lii puisque am ngeen PV yi am nañu ko génneeguñ ko ñoom ba tey génneeguñ nee na ba tey ñoo ci compté waat ñoom ñi ci compté lool bis bi nga xamante ne nee nañ Macky Sall moo gagné woon 2019 ca ngoon ga tey ba tey jii nii ñoo mën a gul joxe ay chiffres à Thiès et à Rufisque problème am na cela veut dire que gagné wuñu Thiès yi ñu leen jox am na léegi nag foofu mbir mi c'est très simple du ñaar du ñett munuñu ko gagné. te duñ ko hold up fu mu leen jaral rek ñoom ñoom jaral nañu ko wala lu mu leen jaral ñun pare nañ pour dépasser ko ñoom xam nañu ko ñun xam nañu ko boobooy bi si njëkk ñaareel bi gis nga boo amee fichier électoral moom laa tiim nii fichier électoral bu Sénégal parce que ñoom ñoo ñu ko jox fichier bi 6 million et quelques votants moo ci nekk boo jëlee dakaar jël Thiès jël Kaolack. jël Ziguinchor mooy quatre régions yooyu 3 millions 887 mille 346 votants la lay jox ku gagné région yooyu noonu 50 pour cent au Sénégal daanaka jël nga ko moo tax. te boole woo si Diourbel ah. dama ne la boo bëlee Dakar Thiès Ziguinchor Diourbel quatre yooyu boo ko jëlee. d'accord loolu. voilà jël nga ko tegee ko à côté. ñoom ils le savent moo tax élection locale ak élection législative dañu am benn enjeu certes. communes yi boo gagné le nombre de communes mën nga ne gagné naa tant de communes mais da xool également force bi ak faiblesse bi fan la nekkee commune boo xamante ne par exemple c'est 2000 votants 2000 nga gagné ko à 1100 keneen ki am 900 kooku est-ce que di nga ko méngale commune boo xamante ne par exemple fu mel ni Dakar nga xamante ne c'est 1 million 900 mille votants doo ko méngale. waaw mënu la nekk donc mooy expliquer na ñoom dañoo nërmeelu mais dangooguñ ko beneen bi. te nga xamante ne wax dëgg neex yàlla nag yaakaar naa ne fa la ñu toll en ce moment mooy nañu avancé élection yi moom c'est plié ñoom li ñu gañee ñoom ñoom gañe nañu ko ñun li ñu gañe gañe nañu ko c'est vrai que tàmmuñu ko woon waaye tey affaire bi dafa changé ma dolli 2017 ñoom bi ñuy gën a 3 heures du matin di foqar ji dakaar le même jour élection législative ay chiffres la ñu indi ba tey est-ce que dégg ngeen fi ñu naan leeragul ñu génnee ay chiffres kan moo gis waa benn bokk yaakaar ba tey fi ñu naan leeragul ñoom ñu génnee ay chiffres te ñoo gënoon a gaaw une deux trois joxe ay chiffres xam nga fii ñoon fan lañ leen jiitu ci loolu lu daan def maanaam organisation élection bi ñoom fiasco la ci ñoom parce que tout simplement ñun le jour ji yàlla xam na ne ba ñu xamoon li ñu liggéey ci campagne bi nit ñi ak presse dañuy gis euh, campagne bi nga xamante ne ñoo ngi dem di def ay meeting ay caravane mais li ñu liggéey ak des technicien nga xamante ñu liggéey ci fichier bi ba xam chaque bureau de vote ki fa war a voté kan la xam kanamam tiim ko aussi bien au Sénégal que des Sénégalais de la diaspora toog xam ku ci nekk gars yi ñu war a mandaté nga xam kii ñëw am na koo xamante ne bu ñëwee dugg si ci salle bi da nga ne kii gisoon naa ko ci fichier bi parce que nee woon na ma sama salle bii man kat kanam yii war nañ fi ñëw mën a voté si nga xool leen xàmmee leen bu baax baax a baax bu ñu leen joxoon autorisation sax nit mën na dugg si nga xool fichier bi da xam ne kii di ñëw kanam gi wala wala du moom loolu mooy njariñal transparence élection. qu'est-ce qui ngeen am position d'avant-gardiste boobu jamono yi. c'est très simple parce que ñoom xam nañu leen ay sàcc lañ loolu ñun on n'en disconvient même pas élection dañ koy ñoom ñaar lañ koy jaarale transfert d'électeur non te transfert d'électeur googu sax su ma leen wanoon. pourtant gis nañ ko ci ci non non dama lay expliquer sax c'est extraordinaire xam nga mhm. élection yi après tout en dépit des résultats yi nga xamante ne euh, Yewwi Askan Wi am na ko fiasco la ki ko organiser xamut manut dafa far. dara muy le ministre de l'intérieur parce que élection yoo xamante ne Thiès gi tey jii nii ak Rufisque biñ naan non parce que élection yi dafa dem foofu ba 22h moo waral chiffre ñoom ñu perte comme ñoom reconnaître nañ ne dañoo perte nee nañu lim dem ba 22h. moo waral léegi ñu ne dañu dugal contentieux est-ce que dégg ngeen lool mais Thiès googu ñu naan dafa dem ba 22 heures xam nga élection yi ban heure la tàmbali. am na ci bureau yoo xamante ne ay midi la tàmbali am na foo xamante ne ay 10 heures 11 heures Rufisque gi ay 10 heures 11 heures euh, parcelle gii ba midi parcelle unité 14 commencé gul préfet bi sous-préfet bi bi ko laajee daane commencé na bi ñu demee ba taxaw ki nga xamante ne mooy le candidat da Yewwi Askan Wi war faa voté gis ne commencé gul ñoom alors. qu'il nous dise quoi boo commencé xanaa sax midi perd nga quatre heures de temps di nga ko yokk ci dix-huit heures bi kon ñoom bu ñu ñu fontoo mais qu'ils respectent les Sénégalais dans ce la xam ne ils ont perdu Thiès amul nag fu ñuy jaar fu ñuy jaar ak ñun ak yi nga xamante ne ñun yor nañ si yi ba gañe ko amuñu fu ñuy jaar ba en réalité gañewaat ko te léegi nag fi may daanele euh, euh, euh, ay dara mm-hmm. notre candidat bi nga xamante ne moom lañu amoon parce que am na fu ñu tuddul Guirassy fan la ne. Kédougou hmm. xaw ma Kédougou on empêché mu nekk candidat. Hmm. Guirassy bu nekkoon candidat. ñoom xam nañ ne day dellu si waat ci ñu naan tey jii nii Dakar Thiès Diourbel sangam da ciy delloo ko mu nekk cinquième te lool dañ koy dolli waat chiffre bi waaye gis nañ foo xamante ne Touba ku gagné. Touba de ay ay bulletin moo fa gagné xam nga Touba. bu doon benn bokk yaakaar sax moo fa am benn bu doon waa Touba yëpp dañoo voté ñuy voté am kenn ku ñëw rek votel bennoo bokk yaakaar lépp nekk bulletin blanc teewul bennoo euh, bulletin wu bennoo bokk yaakaar mooy doon maire parce que benn liste la beneen bi day représenté ku ko bëggut a votel ku bëgg a votel ñii neel man kat votelu ma leen bulletin blanc laa def bulletin blanc bi moo laminé benn bokk yaakaar yëpp dans la commune de Touba xam nga loolu lu muy firi ils ne sont plus aimés des Sénégalais te li ñuy wax yëpp naan Macky Sall moo tànn ñoo xamante ne baaxuñu ñi ñu tànn choisir baaxuñu dans ces lieux ñi ànd ak moom mbir mi du foofu yëpp xam nga kan la euh, tubaab day wax ne le poisson pourri par la tête maanaam jën mi ngi commencé nëb ca bopp te boppal Sénégal ñoom dans benn bokk yaakaar Macky Sall bu amee ku boppam nëpp fi mu ne nii donc nañu war xam xool jéem a xool. mais c'est-à-dire est-ce que mënuñoo noonu que le fait que euh, benn bokk yaakaar également euh, erreur bu mag bi ñu def mooy ñenn ñi ba ñu fippoo def ne dañuy def liste parallèle jàppoon ni mën nañ faa indi sanction ci côté yeewu askan bi nga xamante ni dañ doon redouté bu baax quand euh, seen position d'autant plus que gis nañ engouement bi nga xamante ni amoon nañ ko lors des investitures ak nit ñi ñu leen joxee bopp tamit mënuñoo jëpp euh, au delà de jën bi ci bopp ba la tàmbalee di nëpp que ñoom euh, tey échec bii ñu am ñoom ñoo gasal kàmbu seen bopp. <laughs> xam nga foofu sax daam <laughs> foofu sax daam beneen bu fa am. te loolu mooy seen différence moom laay wax ak euh, Yewwi Askan Wi ñoom kan moo tànn seen seeni seeni i seen i candidats dans les localités. président lui-même. chef de démocratique non non non que soient les circonstances. mais je le répète. man Sadikh Top. Sadikh yéen yéen seen seen coalition bi. loolu laa bëggoon a wax ni yéen am na côté yoo xamante ne yéen a fa tànn seen i nit. bu ngeen ma bàyyi mu am ay liste parallèle. maanaam ñoo xamante ne biir Pastef lañu bokk. mer ci tànneef gi ngeen def foofu noonu ba ñu créé seen liste parallèle bëri na ay gox. booy digle sangu day fekk nga set. yéen a ci yem moom foofu moom yéen a ci yem. bu ngeen paree dinaa leen wax. maanaam man man dama am logique argumentaire. Mhm. maanaam man du ma wax mukk bu ngeen seetloo déglu leen nag ba émission bi di jeex. parce que logique boobu laa choisir toujours dans mes explications mhm. dama am dualité boo xamante ne moom laa indi dualité bi mooy Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. et dans cette dualité chaque fois bu may wax ci benn sujet damay wax ñoom ni ñu ko defee ak ñun ni ñu ko defee mm-hmm. si toutefois y a différence ma ne leen ñun lii mooy différence bi nga xamante ne moom lañ indi moo tax lii ngeen cité nii dama ci doon ñëw bu ngeen ma bàyyee mën naa dem d'accord ngeen a gën a sawee avez dansé plus vite que la musique kon ñu dem ci li nga xam ne moom laa doon wax léegi mm-hmm. mooy choix yi ñu def Macky Sall moo choisir ki nga xamante ni euh, ñoom seen candidat yi ñu am yépp ça c'est pas démocratique du deme noonu et warta demee noonu parce que en réalité loolu lu ñu war a waxtaanee la loolu mooy lii yoon premièrement pour choisir un candidat parce que c'est une affaire locale loolu bu ko ñëpp d'accord ñu avance maintenant dans Yewwi Askan Wi comment ça s'est passé moom laa lay wax. d'accord fan ngeen gis depuis yéen ñi nga xamante ni yéen ngi suivre euh, Euh, c'est vrai euh, bi ma duggee ci politique yàggul loolu j'ai énormément lu ci livre politique histoire politique Sénégal ba lu ci bëri yaakaar naa ne nag wax dëgg ne xel la mën naa cee témoigner mën naa cee wax fan ngeen mës a gis ñu dem ci ay élections locale au Sénégal ngeen gis parti politique bu def des élections primaires bu dul Pastef ku ko fi mësoon a gis. waaw Pastef non damay laajte bu dee mës ngeen koo gis ne leen gisoon nañ. parti sànq dama lay jox lay ay années. ak ay anecdote ak ay tour voilà en 1996. Mhm. bi ñuy dem ci at 2 de la décentralisation ak Abdou Diouf. Mhm. le parti socialiste daanaka ay primaire la dem ci gox yu bëri yoo xamante ni dañoo beesoon je peux je peux te donner par exemple communauté rurale bu Sébikotane yéen Sangalkam bañ cay dem primaire lañu dem entre Makhoudia Ndour ak Alsane Dialy Ndiaye Alsane Dialy Ndiaye gañe ko nekk maire yéen. léegi mën naa laa tontu. waaw li nga wax dinaa la wax lan moo ci lii li nga xam ne vraiment rafetlu nañ ko ak fan la affaire bi fa bi fan la damee. Mhm. da fa ne acte deux de la décentralisation am gox yu yees ñu ne ci gox yooyu nañ fa dem primaire xool kan lañ fay jiital ñun nag defuñu gox yu yees gox goxi Sénégal yépp lañ def loolooy différence bi. d'accord Sam Sam notaire sa Ndiaye mi bokk si yéen dafa maire parce que dangeen ngeen a jël maire maire sortante bi teg ko ci bopp bi te neexu ko moom sax dafa demoon ci liste. léegi nag foofu laay tontee. ma yokkal la ci Mbour ah, avec maître Tall amoon nañ problème. foofu laay tontee. bu savee damay la damay leen jox Pastef jox leen coalition bi 557 communes boo ko amee nga def lépp ay primaire bi ñu defee primaire ñu am 98 contentieux ñoo xamante ne ci biir Pastef dans ces bi ñu defee primaire 98 contentieux yoo xamante ne dañoo na ñoom d'accord ñu vidé 98 contentieux yépp ba mu des ñaar ñaar yépp sax vidé nañu ko mais dafa jur mer muy bi ngay wax noonu Mbour biñ ci tegee une semaine au maximum dix jours loo gis. jubóo ñu toog waxtaane ko. campagne bii ki nga xamante ne moom lañ doon wax mais koo gis mu toog ci wetam kan moo toogoon ci wetu Maître Tall. mooy. Jeyte Mamadou Lamine Jeyte kon foofu réglé wu na. nangu ngeen ne réglé wu na. Mhm. beneen bi nga xamante ne mooy ñaareel bi mooy euh, c'est à ki nga xamante ne moom la ñu choisir ak ki ñu choisir lu mu mer. c'est c'est que aussi cest à train le train qui arrive à l'heure aussi ñun souvent ne nous intéresse pas c'est que intention bi nga xam ne jëloon ngeen ko moo di quand Euh, bañ def li nga xam ngay naqaru ci le président de la république ñu delloo Babacar Rinkum moom ñu ngi fàtte ne Rinkum lañ nekk dañoo dugg ci ganu bët set te ponk Rinkum yi lañ nekk xam nga xam nga ay dara dinaa la wax pour man leen damaa bëgg mu neex échange yi neex ngeen euh, wax ma leen tontu ci lu leer on ne détermine pas ou bien on ne juge pas l'intention en politique on juge les mhm. te l'intention yow mënoo koo xam mënoo ne lii moo nekkoon intention bi rumeur ngay am wala nga am une information mais l'intention en tant que telle mënuloo ko xam et démocratiquement sur 557 communes si on te dit que deux yii la nit ñi d'accord wul te mujjoon nañ ko régler nga bëgg a yem ci ñaar yooyu dañ ne la régler nañu ko nga bëgg a yéeg ci intention finalement da ngay daanu du intention parce que on juge les actes les actes que l'on juge mooy wane ne on l'a bien fait léegi nag avant ñoo dem ci Babacar ma wax la ñëw la ci coalition bi xam nga loolu c'est dans am ay candidats am ñu ñun nii choisir ñu war a dajaloo ci coalition coalition bi c'est une coalition de vingt cinq partis et mouvements politiques ñu am ay leaders ñoom seeni parti et mouvement politique ñun bi ñu demee nga xamante ne choisir nañu suñuy candidat dañ koo jox ci loxo yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer Euh, investiture yi dans la coalition ñun waa PASTEF de ñu ñuy suñuy candidat nous nous nous mettons à votre disposition défendre leen suñuy candidature bu ñu jëlee ñu xam ne ñooy candidats yi buñ ñu jëlul ñu accepté ko. d'accord loolu mooy li am. Mhm. ñu def ay investiture am ñu ñu jël ci PASTEF am ñu ñu jëlul ñëpp accepté ko maintenant ki nga xam ne du du foofu kese dama lay dolli feneen. Mhm. Grand Yoff mhm. ka ñu choisir ñoom dañoo bañ. dañ leen a woo ne leen hey si vous croyez à ce projet là vous allez vous taire et ngeen. jëm ci li nga xamante ne moom la ñuy liggéey parce que c'est démocratique le choix a été fait te noonu lañ ko tënkee ñëpp mujjee rangé wu maintenant d'ailleurs yu sew sewaan yooyu pour wan leen ne tellement le président Ousmane tient à la discipline du parti tellement dafa bëgg ñu respecter démocratie tellement dafa bëgg projet bi tiim ñëpp bi mu génnee am na ñu doon wax naan président dal na ci kaw waa partem parce que tout simplement da leen bëgguma lii ñun lii taxuñoo jóg ay xëccoo ay maameer fii ay waroon nañ ma fi teg bëgguma lii tey laal fi may joxe kàddu gi nag mu ñett non fi may joxe kàddu gi est-ce que xam ngeen ne est-ce xam nga ne xam nga ne est-ce que xam nga ne ngeen ma après dañ koy dañ koy dañ koy continuer li li parti parti xam ngeen ma dans Pastef hmm. xam ngeen ma dans la coalition Yewwi Askan Wi hmm. est-ce que xam ngeen ne man mii di wax ak yéen hmm. waxuma la nekk candidat mais man nekkuma ci benn liste bi ma demee ñu ne ma indil sa carte d'identité ma jëm joxe carte d'identité après bi liste bi génnee waaye daf ma woo ne ma day dañoo amoon problème ñu ñuy dugal ak xëccoo coalition ma ne ko loolu c'est vraiment ay ay problème sew sawaat la nekkul njariñ li njariñ li mooy naka la ñuy defee ba servir suñum réew ça ne pose aucun problème léegi pourquoi nit ki tenir que à chaque fois ñu def ko ci liste bi ça ne se passe pas comme ça en politique. d'accord merci beaucoup en ma bàyyi la nga nga daaneel ponk ruñ ko njëkk ñu daal di dem ci ci ñaareel bi di fàttali ne lii ah bu ndaw la rek ci waxtaan wi. xam naa ne eh, fi mu toll nii la déboré campé ci kanam tuuti dinañ ko gën a yaatu. li dal instant yi benn bokk yaakaar. nekkul lu nga xam tey nii lu ñuy doog lu guléet la ci réewu Sénégal quoi. parce que 2000. ba 2012 aussi gis nañ fi euh, jamono uh-huh. nañ génn nañ décrier élection yaa ne gars dañoo sàcc. non après càcc gi parce que li waxtaan bi li li li bi la film bi ñëw ci càcc ñëw ci lépp. parce que ñu ñu bëri xam naa ne am nañ ci ay laaj ak tontu ba ci commentaire ay question yi ñëw dañuy bàyyi ci kanam tuuti ñu daal di koy gën a. voilà yàq Babacar. waaw ah, bu bu ngeen dévié wu doon sama question jàpp naa ne am ngeen réponse mais da ko mujjee def question l'opposition ak parti au pouvoir parce que soit alpha y a des résultats yoo xam ne jot na génn ñeneen ñu ngi contesté ñeneen ñi dala jàpp ko ne loolu moo nekk les vrais mais quoi qu'il en soit comme ni ñu koy waxee fu wanante di mujjee itam loolu dinañ ko xam euh, futur au niveau de Thiès ak ci yenn bërëb yi également pour xam résultats yi lan lay joxandi Ahmed ñu dem ci ñaareelu ci ñaareelu ponk bi mooy li ci gën a am solo bëccëgu tey Sénégal war a amal li nga xam ne moo di ñeenteelu sortim mais nag dafa dala dugg ci li nga xam ne mooy ñool wàllu euh, Coupe d'Afrique des Nations huitième de finale suñu diggante ak euh, Cap Vert bu ñeenti waxtu ci bëccëg jële jot euh, tey jile lu bari nag ñu ngi koy xaar ci équipe nationale bu Sénégal parce que askanu Sénégal jàpp nañu ne il e temps pour que ñu confirmer loo xamante ni peut-être dinañu mën a confirmer loo mu mën ñu jox yaakaar boo xam ne euh, dinañu am ne maanaam coupe bi war nañ ko mën a gagné ba tax na kàddu yi bari loolu te wutee jot naa jib dooree ko ci Aliou Cissé ak kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati moom jot naa wane fu mu toll nii que ni euh, maanaam réaction bi nga xam ne moom la Sénégal yi di xaar ci équipe nationale bu Sénégal euh, jàpp na ne dina am ni ki tey jëlee ñenn nañu aussi ku ci mel ni kon na ci li nga xam ne moo di équipe nationale bu Sénégal jot naa artu mu jàpp ne faaw gaa dala wane loo xamante ni daal lu fës lay doon pour que nit ñi tam mën a dundee li nga xam ne moo tey ji est-ce que carrément mënees na jàpp ci a fournir ci match de poule que ne dina prouver loo xamante ni nii euh, daanaka euh, luy joxe yaakaar la mooy ñewal li nga xam ne moo di victoire finale ba bu ñu xoolee bu baax ne jot naa retrouver lépp loo xam ne moo bokkoon ci effectif am te en plus jot nañu am benn temps de repos bi pour créer wàlle benn jeu collectif depuis presque ñu door euh, ba ndégée ne amet waaw am nañ une semaine de am nañ ayu bés goo xamante ne nii. Euh, ñoom noppalu nañ ko préparé nañ ci toggaat ci mbir yi blessé yi gën nañ ñëwaat. Mm-hmm. mise en train bi jaar na yoon ñoom ñoo ko wax. Euh, li askan bi yëpp di laaj cest à moom mooy ñu yeewi ñu loolu la askan bi yëpp di laaj ci équipe nationale yow noo ko jàngatee. maanaam da ngaa bëgg daal équipe yeewi askan wi ni yeewi askan wi yeewee askanu Sénégal. waaw loolu daal la loolu daal la sénégalais yi wax. waaw bu dee c'est <laughs> en ah, fait ñoom seen jéng bi sax dafa yàgg. waaw jéng bi nag daa yàgg bi sax ah, c'est moins moins moins de 15 ans mais ñoom seen jéng bi boobu ak léegi. léegi mu mat léegi mu mat 50 ans. parce que ñu jénguñu rek ci Coupe d'Afrique. Euh, man damaa jàpp ne wax dëgg neex yàlla nag bu ñu góor góorloo war nañ cee mën a génn. parce que man dafa am match boo xamante ne daf ma marqué démb muy match Comores ak. Euh, Cameroun ak Cameroun. équipe bi 7 minutes lañ jëlee rouge. ba pare seen ki góolu ba fin du match bi joueur la. joueur de champ latéral droit moom moo góol ba fin du match 2-1 lañ leen mujjee dóor mais ñoo Cameroun yi ba da naan da xam ne ñii seen engagement mhm. loolu nga gisul équipe nationale du Sénégal pour le moment exactement ñun loolu la ñu gisul suñu équipe nationale bi ñoo xamante ne vraiment wane arñi bi nga xamante ne la ñuy xaar ci ñoom nekkaguñ ay gaynde buñ dee waxante dëgg rek li ñuy xaar ci ñoom mhm. nekkagul lii mais loolu aussi bu ñu demee ba ci biir man Euh, damay dégg nit ñi di wax naan euh, nous avons une bonne défense parce que encaissé guñu but. Mm. waaye ñun dugaluñ bi bi ci ci ci ñun ci fait de jeu maanaam penalty lañ dugalee mais en cours de jeu dugaluñ ci benn but te nag mënuloo gagné ñun dañoo bëgg di gagné euh, di demee noonu ba ñu dugal dugal penalty wala comme ça non mënut a nekk noonu. alors man bëggoon naa xam. topp par rapport ak li nga xam moom moo nekk tey jii tolluwaay équipe bi ndax mënuñ li mu li jafe-jafe yi muy jànkonteel nii. comportement yenn si njiit yu nekk ci wàllu sport taxul mu mu mel ni mel ndax bu ñu jëlee ci biir kan bi nii ñu ngi gis le ministre des sports Matar Ba mu nga ca Fatick di campagne Abdoulaye Seydou Sow mu nga ca Kaffrine euh, Augustin mu nga ca Gorée est-ce que aussi équipe bu war a mën a jël ndam wala équipe nga war na mën a am benn position bi ci biir Afrique wane leadership am ay jiitam war nañu mën comporter wu comportement yi nga xam te xam nga loolu ko jur hmm. gis nga d'abord politique bi dañ ko defee noo xamante ne dafa sut lépp loo xamante ne moom moo waroon déterminé suñu souveraineté ak légitimité. Hmm. te loolu baaxul. Hmm. muy bi njëkk maanaam ñoom dañoo jël politique bi mu tiim suñu euh, sport bi. Hmm. mooy li nga xam ne moom lañu gis ci kan bi beneen bi te loolu bokk na ci ñun aussi li ñuy xeex et j'espère que nit ñi dinañ ko comprendre nekk ministre de sport wala nekk ministre. woo waratuloo sax bokk ci ay élections locale daa am lu ñu la dénk lu ko gën a diis ñun li ñuy yootu mooy ministre yoonam nekkul ci élection locale. waaw ñu laa toll dénk nag lu toll nii ab sport dëkk. waaw ngay xëccoo ab gox goxaan. ba pare gox goxaan boobu tax maanaam ci xel ci xel ci xel. maanaam li ñu la dénk bi dafa ëpp solo ëpp dayo ëpp njariñ pour ñëpp lu ñu mën a bokk ko benn ruq nag. xam nga lii lu muy boo ci doon ñëwaat mi ngi mel ni tey jii nii ñu ne ci wàllum koom. Mm. adduna yi ñu ngi jongante pour xool ku ci nekk lañ lay jox. suñu ministre bi nga xamante ne moo yor wàllum koom war a dem élection yii tax ci genn gox mu toog. ñu lii mooy problème bi ñu am Sénégal. mais benn côté nag seen ñàkk dem ci équipe nationale. waaw wax dëgg yàlla ngëneel la selon information yi ma fa jot. Mhm. maanaam dallu gi équipe jour yi di dallu nii. du ngëneel dinaa la wax li tax du ngëneel. waaw non xaaral xaaral dafa ñëw mhm. dafa dafa am ci benn plan plan sportif boo xam ne. Mhm. Sénégal dafa daan sooxe Afrique yëpp dañu ko xase ah. Mhm. man xam naa xam naa benn benn benn benn Tchadien boo xam ne journaliste sportif bu mag la biir Tchad dafa ma daan wax seen équipe nationale bi du mës a gagné tant que seen hôtel yi organiser woo leen ko seen joueur yi di mën a tëdd heure di mën a noppal ministère yi. seen seen délégation yi délégation fédération ñëpp ci hôtel bi pëcc xóob bi dugg génn bi yenn yi bëgguma ko tudd parce que ay xibaar rek lañ ci am jigéen ñi dugg beeg bi mais nee nañ cette fois ci hmm. li am foofu noonu mooy que délégation bu restreinte moo fa nekk. Hmm. dugg bi bëriwul génn bi bëriwul jour yi teel a reer. teel a tëdd. te ragal naa nag délégation yi war a dem fekki leen bu ñu demee. la daan xew dana xewaat après jour yi du ñu am repos bu doy bu compétition bi gënee yàgg. du ñu mën a gérer li nga xamante ni moom mooy. compétition bi te feeñ na si suñu kaan yu bari. équipe nationale yi. Mm-hmm. yi nga xamante mm-hmm. am délégation yu baax mais xam nga li nga wax yépp xam nga fan la problème bi nekkee. Mm-hmm. problème d'organisation problème mu discipline. maanaam même dans ces délégations ñi nga xamante ne ñoom ñooy des autorités politiques war leen a a être très discipliné ñu yam dal waruñoo sax bokk hôtel. tellement pour war a gérer wala ba bu ñu. dañ fay jaabante duñu bokk hôtel mais dañ di dem di ñëw. war ta nekk yoon. léegi nag foofu am nekk une délégation sénégalaise dem pour les soutenir wan leen na ñoo ngi fi problème bu war a am. ñu mm-hmm. remonter ko régler ko sur le champ moi j'approuve mais xam nga lan moo dul yoon. Mm-hmm. amuñu droit muy problème mu discipline ak problème mu do problème organisation. te loolu foo dem. ci suñu secteur yi nga xamante ne la ñu yor dans ce pays là mooy problème yi ñu fa am maanaam ñun. Mm. il faudrait que l'on repense notre modèle organisationnel. politique bi ñu dem euh, jiital li nga xamante ni moom moo ñu fa yóbbu mais politique bi. moom moo koy jiitu te mm. indiwaat chaque jour moom moo di euh, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il kenn ku ci nekk booy dem yóbbaale sa sa mbooloo dajaloo tamit na fa xuus chaque jour on répète les mêmes erreurs. te te te duñ ci jàng. ay joueurs yu dem pour accompagner équipe bi dem ci ay boîte de nuit di fa fecc di noos. jox nañ ah. seen explication. Ah, également vraiment donc. mais est-ce que ça def ñoom tam waruñu euh, responsable comme ay magum jëmm lañ ba dem bay compétir. xam nga xam nga joueurs yi joueurs yi nga xamante ne dañuy jël ma ma man danañ la expliquer benn boo je sais parfois d'entrer dans l'esprit du sportif ñoom parce que lii lii fële du fii le plus souvent parce que seen dëkk yële. en fait da ngay nekk foo xamante ne club la certes dina am harmonie mais nekkaloo fa ak say say say say compatriotes euh, ba foofu liggéey bi sedd bi nekkul saa su ne ngay mën a génn dem entraînement jouer ñëw dafay metti boobu ñoom bu ñu dajee fii mm. le plus souvent moment la boo xamante ne de retrouvailles et d'entente léegi nag dans ces moments de retrouvailles et d'entente mën nañ leen a bàyyi ñu toog waxtaan kafre mais génn di dem parce que ak virus bi fi mu toll nii duñ noppalu comme il se doit man loolu laa ne du dëgg du yoon gis nga am na 2019 non non su ma juumalee coupe d'Europe bi passé la coupe d'Europe bi passé la effectivement bi France perte 15 jours après y a des journalistes sportifs qui se sont interrogés ci temps de repos wu jour yi xool ba xam jour yi amuñ fu ñu jour sàngam génnuñu woon. ou bien à 72 heures ou 48 heures de match est-ce que génnuñu. loolu yëpp rek pour que parce que moom moo war a déterminer résultat yi nga xamante ne lañ war a am léegi nag. entraîneur bi ñu ngi koy souvent ŋàññi. entraîneur bi yow bokk ci ñi koy ŋàññi. boo xam man damay suivre sport. Hmm. man damay suivre lool lool sport. man damaa bokk ci ñi jàpp ne. Hmm. entraîneur bi ba mu fi waree jógee dafa yàgg. parce que depuis sept ans mi ngi fi. defagul ay prouesse boo nee defagul ay prouesse ñi nee nañ noo dem na fi final kan mais li mu am mu mais loolooy problème bi moom moom mooy loolu mooy problème bi xam nga lu tax hmm. parce que li ñu am ci joueur qualité joueur yi ñu am hmm. en individualité hmm. déglu baax li ma lay wax en individualité construire ko ci jeu boo xamante ne day am fluidité day huilé ba Sénégal bu joué nga ne acam doom ñii kat ñi ngi teg bal bi. comme ni ko xëy di waxee amu fi. amuñu euh, projet de jeu. boo xoolee loolu mooy suñu problème déglu lu baax match tey di nga ko ci gis pour war na leen équipe nationale bi chaque fois seen jeu c'est toujours la même chose. football dafa am na muy yoon soit défenseur yi xam naa dinañ ne waa sax di topp xanaa moom dafay dafay kii sport bi. Hmm. défenseurs yi souvent ñoom ñooy am link li nga xamante ne moom mooy. problème li tubaab naan sortie de balle dañu am problème mu de balle exactement dañuy jël le milieu terrain te ñu jaaree le plus souvent ci digg bi foofu la mbir ya nekkee mais Aliou Cissé amul projet de jeu loolu suñu problème. d'accord équipe boo xamante ne xool leen li ñu am ñun ci ay individualité si ba tey jii nii ñun amaguñu ñu mën a wax ni benn but sur un fait de jeu donc y a problème dañ leen waxante dëgg. espérons que problème. yooyu la trois trois matchs six tirs six tirs cadrés. en trois months. balaa ñuy wax waxu balaa ñuy wax waxu bii wala waxu waxu waxu nangam cest dire tiir cadre yu bari sax mënuñu ko am mënuñu ko am mënuñu ko am. Cap-Vert Cap-Vert tey nga foog ne yéen am ngeen yaakaar ci Cap-Vert tey. non je pense wax dëgg yàlla ah. nag Cap-Vert. mais xanaa li ma dégg ñoom intoxication bi <laughs> même même bu ñu bu ñu matoon donc euh, Cap-Vert ak Sénégal moom y'a même pas y'a même pas photo ah à chaque fois à chaque histoire aussi à chaque fois ñuy ñuy ñuy tase bu ñu jàllee ah, ci Cap ah, Vert ah, baax na yéen de Sénégal ay ca Babacar sur ces huit derniers matchs yi mu am défaite bi mujjee am Sénégal moo ko dóor ñu ngi fàttaliku bi ñu doon amal fii ci diwaanu Thiès. Mhm. mais problème bi mooy day jouer ak cinq défenseurs. Mhm. très souvent. Mhm. te Sénégal dafa am problème ak bloc bas. donc tey jii ban tactique de jeu moom la Aliou Cissé di àbb encore posé woon nañ question boobu ak Guinée. Mhm. amoon nañ ci échec presque boo ko xoolee les Requins-Bleus également même chemin bi moom la àbb est tey dina mën a résoudre li nga xamante ni moo di daal di tas bloc bas bi nga xam ne moom la euh, Cap-Vert di jouer ak cinq défenseurs yi loolu aussi c'est une autre question qu'il faut se poser mais également un jeune boo xamante ni ku jar a bàyyi xel la suñu diggante ak ñoom moo di Gary Rodriguez Ahmed aussi. Hmm. mais Ahmed Ahmed Rodriguez sant boobu moom souvent dañuy neex xel. Ahmed bu ñu bokk dañ cee Ahmed fan zone yi xanaa duñ ko yemale fii de donc yàlla baax na. Ah, ah, ah, gars yi de ñu demee final. campagne ñu ngi doon fan zone koo gis bu fan zone. <laughs> saa yi comme campagne bi jeex na fan zone yi dina jeex. mais ko man foofu dama koy wax parce que la Gambie a été minimisée ba ñu qualifié ba ba ñu duggee tey ci kaan bi on a ñoom ñoo éliminé tey euh, équipe bi nga xamante ni Sénégal jafe-jafe dëgg la amoon ah, non mais Aïda foofu attention dama lay wax Gambie ñi ko doon minimiser mooy ñi nga xam ne suivre suivre ñu sport la ñu xamul Gambie compétition internationale yi gën a mag mhm. U21 euh, day dem mhm. U19 day dem U17 day dem ba pare saa yu fa demee def jaloore. à chaque fois ñooñu noonu ñooñu noonu booy yooyu tojoon fii mondial U20. Mm-hmm. booy yooyu actuellement ñoo nekk ci coupe d'Afrique bi léegi nag comme gars yi ah, suivre wuñ leen. dañuy yaakaar ne tour bi la ñuy jël rek jàpp ne Gambie Gambie Gambie. mais mais booyu Gambien yooyu nekkoon di toj mondialu U20. booy yooyu ñoo fi nekk nii actuellement ci coupe d'Afrique bi. éliminé Guinée bi te balaa may gëm ne du éliminé Cameroun <laughs> kaaf jàpp ci man ah? li ma métti tout jàpp ci wala non même kaaf jàpp ci góobu ne dina ci génne kam non problème bi ah, nekkul foofu mais li Sadikh di wax ne ñun moom lañ manqué Gambien yi moom lañ am un projet un projet de jeu clair maanaam da ngay toog di leen seetaan nii nga xam seen objectif li ñu bëgg def actuellement ci quatre-vingt-dix mille yow da koy xam effectif u Gambie moom objectif ñu demee effectif u Gambie nekkul nekkul trois ans nekkul quatre ans effectif bi ñëw Coupe d'Afrique ni presque six ans wala cinq ans ñu yàgg di jouer depuis ñu nekk xale seen seen tak bu ñu nekkee seen rek nga xam ne ñoo sénégalais kenn da nga ñu da ngay dégg Bamba Dieng ma ngay toj Marseille nga gaaw andi nga toog yi dégg kii ñu ci duggee damay bañ sa di réagir baaxul la ñu am parce que loolu togg la boo xamante ni c'est au delà de sélectionneur beeg nangam et mm. malheureusement tamit loolu amuñu ko amuñu centre de foot bu mag bu national boo xamante ne nii comme genre Clairefontaine dañ fay tàggat suñu doomi réew mi entre treize ans ba baa ñuy màgg xamante tey jii li France di réussir Allemagne di ko réussir yeneen dëkk yi ci football Côte d'Ivoire di ko réussir ah, non man moom nee naa Coupe ah, ma naan amuñu stade lii damaa bëggoon mu ne ma stade jam ñaajo nag. <laughs> waaw da loolu est nekk bu ko di. non <laughs> non problème bi sax foofu. xam xam nga ndam bi ndam bi mooy région bu ci nekk daa war a am stade bu baax. moo tax maa ko. yenn capital régional yu mag yi war nañoo am 3 ba 4. Euh, laa doon jëm si. mais euh, del xool stade bi mais c'est à saluer quoi. dañu ci génn di ndamoo lu nañu wax ko. mais c'est à saluer. voilà waaye yàlla xam na ne. Hmm. Sénégal ak ni mu toll ak li fi nekk ci ay ressources ak li nga xaman xoolal booy pourtant les les jeunes sénégalais ils jouent très bien au foot bu ñu leen encadré woon nga xam ne booy ñoo mën a am équipe yu baax hmm. mais. benn stade école de foot mais da ngay jouer booy ba ba keroog ngay am près de 15 ans ci la ngay jouer ci suuf. Mm-hmm. après nga war a commencer man a jouer ci ci gazon après ñu naan la gazon synthétique wala gazon naturel. Mm-hmm. réadaptation boobu noonu day changer day changer sax. Mm-hmm. philosophie ak technique gu bu benn xar ab xale. yooyu yëpp xamuñu ko ñun. problème la merci merci beaucoup Babacar ma bàyyi la ñu ñëw ci ñetteelu ponk rinkum bi. ayca déclic tëngeej na leer loolu partie kan la. maam Ngor Ndiazaka très donc ñu bari bari ci askan bi nag xam naa ne mënees na ko umpale mais moom teewul bokkoon na ci ñi nga xam ne daanaka ci candidat lañu ci élection ko xooxaat yi ay polémique nag jot naa bari ci lu ñëwal wàllum électeurs yi nga xamante ni amoon na ci genn wetam ak li nga xam ne moo di wàllum vote mais teewul jot naa génn yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko amet dellu si waat ci ci plateau bi Laye Fall euh, tey dama jóg pour wax ak waa Sénégal yëpp parce que li xew tëngeej fii mësul am fenn on a voté depuis dimanche ba léegi nii les résultats officiels génnagul ba léegi nii léegi nag ñun duñu nangu am suñu victoire ba pare kenn di ko hold donc nag opinion bi maa ngi gis ay nit nekk ci Facebook bi naan maam góor lii maam góor lay mais fii Rufisque kenn mënu ma fi gañe te duñu nangu kenn. voilà donc Ahmed. donc amee donc yéen a ko gisandoor noonu ah, xam nga ñu ngi wax sànq benn ëllëg électoral yi waaye bi askan bi ak waa benn boo ko yaakaar au niveau de Thiès Rufisque ak ci yenn gox yi Mame Gor déjà la majeure partie des Sénégalais dañu doon wax ne peut-être moom amul sax presque <laughs> cent personnes yoo xam ne ñoo ko voteel mais ci vidéo bu ngeen ko déggee mooy dafa mel ni ne moom dafa jàpp ne benn hold-up électoral également dafa fas yéene am foofee ci diwaanu Tëngéej ndax moom jàpp na ni bu dee victoire am na aussi kenn mënu ko ci génne laa nga wax parce que ñoom Sariif Tom ñi ñu ngi jàpp ne waa Bennoo Bokk Yaakaar seen wax ji ñuy wax tëggeej ñoom ñoo tax ndekete maam góor a tax ndekete maam góor moo tax waa Bennoo Bokk Yaakaar boobu ba léegi nangu ñoo compté di wax di ba nar fa hold up en tout cas en tout cas dañu bëgg a jël affaire maam góor yi aussi di ko di ko ironiser quand même mais man pour man c'est quelque chose de sérieux parce que c'est un candidat comme tous les candidats et que <laughs> Babacar. <laughs> <laughs> mais mais baax nga mais HCM ah, c'est que ah. c'est que aussi c'est vrai ah maam góor bu ñu xoolee depuis début campagne bi ba nit ji élection yi jeexee mm. dañ koy kaañ rek a chaque fois gis nañ ko fi ñu wane ko ci ay vidéo ak ay xaal gis nañ ko fi

ñoom Sadikh ñoo ko bloqué. le fait que non aussi bëggoon naa naa fi may daanalee mooy ra uh-huh. pour pour laaj ko Sadikh mi uh-huh. ndax maam Ngor déggoon dañ ko ci benn interview. Uh-huh. mu ne Sonko. du gagné Ziguinchor. Sonko mooy jël ndaare ca si ca ca Ziguinchor. alors ma bëggoon xam euh, aussi euh, bi affaire yi demee ba Sonko nekk maire Ziguinchor lan nga di tontu maam Ngor par rapport ak sorteem boobu. absolument rien du tout. Hmm. d'accord <laughs> mais mais lu tax lu tax doo ko tontu. parce que moom sortie yu muy def yëpp presque ñëpp gis nañ ko attaque yu métti lay teg ci Ousmane Sonko parce que moom élément élément élément Macky Sall la da koy wax tout le temps nëbbu ko boo déggee Cheikh Gueye démb ni waxee nee na ñenn ñi nga xamante ne sax dañoo beddeeku demal seen bopp loolu noonu ci compte Benno Bokk Yaakaar la bokk. Euh, donc kon Mame Gor même bu amee victoire Tëngéej loolu ci Benno Bokk Yaakaar la bokk. kon moom selon Cheikh Gueye. waaw kii est devant parce que jàpp na ni résultat yi génn lu leer na selon Mame Goor ah, d' accord. mais c'est-à-dire bëggoon naa xam mais est ce que ñoom cest ñoo ñoo ñoo ñoo parce que tamit quoi qu'on puisse dire euh, euh, képp ku noonu ak yéen rek dafay. <laughs> ku noonu ah, dañ leen jox bopp bu dee ku noonu ah, ñàkk day wàcc kon na wàcc. <laughs> non nag Macky Macky demul ci plateau yi di wax Mame Goor tout le temps on le voit muy euh, clash euh, kii di Ousmane Sonko ak Pape Diop. concernant Mame Gour je ne répondrai pas. waaw foog nañ ko bàyyi noonu. voilà donc Aïda hold up bi waaw hold bi Aïda waaw fàttali naa dégg gu ma la si bëgg dafa nekkee sekku. Ah. Mhm. alors euh, bu ñuy bu ñuy bu ñuy wax tey. ci ci ba desooré al waxa ak balaa njaayam alors. ci euh, euh, kanam lañ ciy wax. lii ci kanam lañ ciy wax lii waxaguñ ci léegi lii ci kanam lañ ciy wax. laal foofu. mais mais quand même Rufisque sànq am na am na lu lu Sadikh wax waxoon ne euh, loolu jarul du du du raison que ñu war a expliquer retard bi nga xam ne am na sur la publication des résultat mhm. tey jii bu ñuy xool dafa mel ni loolu moom moo quand même yëkkati li tax maam góor tey exprimé wu ci ci wàll wi parce que bi ñuy xool moom exprimé expliqué na ne ñoom ba nit ñi di voté la ñu voté même s'il y a eu mais qu'est-ce qui explique tey jii ñu toog ba deux jours après publier wuñu li nga xamante ni moom moo di résultat yi te man dama jàpp ni autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo chargé des élections au niveau tey de cette localité ñu génn expliquer li nga xamante ni moom moo tax ba nëgë nii mënuñoo xam ba tey fu mu toll également parce que mënuñu ironiser si je me permets mais mais mais euh, Benno Bokk Yaakaar moo publié wul mhm. résultat wu Rufisque mhm. résultat wu Rufisque yeneen parti yëpp ak siégeant yi fa nekkoon yëpp jëndee nañ yi ñu je pense que ñoom Sadik aussi jot ngeen seen PV mais ba tey mi ngi mi ngi mi ngi yeex bu ñu xoolee par rapport ak yeneen gox yëpp bu ñu xoolee Rufisque bokkul parce que keroog ba ñu prolongé vote yi ba 20 heures ñoom dañ leen gis ñu def ba 21 heures loolu ba préfet dafay communiqué génnee expliqué loolu waroon nañu génnaat tamit wax ak askan wi parce que euh, quand même c'est pas la euh, personne de Mame Gour euh, spécialement boo xam te ni moom moo ci soxal askan wi mooy ñu nekkee ci biir Rufisque parce que bokk na ci gox yi nga xam xamante ni tamit compétition bi rudoon na fa te ku nekk yaa ngi xëccoo pour positionnement bi par rapport ak ces euh, résultats yi nga xamante ni moom moo fa nara a tukkee mais euh, dégg naa ci ci ay xibaar yoo xamante ni maam dafa dem ba ne day porter plainte nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Facebook bi euh, di di di di gàkkal li nga xamante ni moom moo di campagne gàkkal votam gàkkal li nga xamante ni également moom moo di proclamation résultat yi xaw ma nag lan moo tax Sénégal mais dem nañ ba gis ko fu nekk ci réseaux collage yeeg euh, fenn fu nekk. am na am na am na am na loo xamante ne c'est mm-hmm. un bu ma bu ma commencé bu ma si seen waxtaan bi laa defee constat bi mm-hmm. est-ce que seetlu ngeen ne fi ñu naan dafa am contentieux yëpp yëpp yëpp benn mm-hmm. bennoo génnewuñ fa seeni résultat <laughs> indiwaat oh. <laughs> ci moom laa waxee moo tax bi mu ne résultat yi jëndeeguñ ko fa mu ne ko déet bennoo moo fa jëndeegul résultat am mais la plupart p PV nit ñi gis nañ ko ci réseaux sociaux yi gis nañ ko feneen ak feneen donc mm-hmm. peut-être ñoom dafa am ay calcul yu ñuy def wala dañuy xaar. tey laa leen defal benn confidence lépp lépp élection ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. élection présidentielle bu 2019. Mm-hmm. gannaaw bi ñu génnee def déclaration jour bi ñoom ñu ne ñoo gagné. ñu attaqué leen ne non et voilà daat ne na presse bi xaw a tey tuuti ñun dañoo dem boo xoolee élection bi mi ngi am le dimanche lundi mardi mercredi jeudi président Ousmane Sonko génn def sa déclaration. Mm-hmm. jeudi boobu xam nga tax mu génn def déclaration. Mm-hmm. daa dem avec l'équipe li suñuy mandataires yi signé ñu xool ko bi ñu compté sur la base tout simplement des PV ñu ne sur cette base là là là là là. nous savons que élection yi jaarul yoon mais sur cette base là amuñu ñun argument technique buñ ko buñ jàkkaarloo ak moom mu génn def déclaration il est passé à autre chose PV yi li say mandataire di signé moo tax cette année ñun dañoo choisir te mandataires yoo xamante ne leer nañu ne ñi ils avec nous mais aussi former leen ba ñu bàyyi xel élection yi mu jaar pour mu jaar ci yoon ba nga xamante ne PV yi ñun buñ ciy jot. Hmm. la vérité des urnes lay doon parce que la ñu daloon 2019 la ñuy bañ parce que bu PV yi génnee. Hmm. sa mandataire signé ko kalafa fa teewaloon ñëw indil la ko. Hmm. nga ne diw def na lii techniquement xam nañ ne am na fu mu jaar mais mënuñu ko prouver carrément nooy def on est en démocratie. da ngay naan réew mi day tàkk du koy taal non duñ ko def. d'accord loolu ci kanam dinañ si gën a ñëwaat ci fichier électoral bi ak li nga xamante ne nii jàpp nañ ne. Euh, awut yoon ci ci ci li nga xam ne moom mooy élection yi ñu jënd Babacar ma bàyyi la nga daal di tëj rinkum yi daal di tàggatoo. waaw Ameth mu ngi noonu euh, jeex na ba mu doon ponk bu mujj mooy lu ñu ñëwal situation Mame Gor Diazaka xam naa dinañ ko suivre de près au niveau de Tëngéej exactement. mais léegi yow la moo tax nga indi Ousmane Sonko ci waxi Mame Gor Diazaka yooyu. kan indi ko ci sa écran yooyu. laay faal la parce que kii mu doon expliqué ci ci ci ah, ci affaire fichier. mu man yow yaa ko commandé <laughs> <laughs> mais de façon xam naa lu leen boole ay li Sadio Top def sànq laay mujjee def man noppi <laughs> mais dinañ xool exactement fan la wane di mujjee gëtam ëllëgam est ce que mooy gagné au niveau de Tëngéej waaw wala déet c'est une autre eh, eh, eh. mais comme moom jàpp na ne ëllëg peut être mu ngi waaj a am donc suivi bi dina ci am pour ñu xool exactement fu wane di mujjee gëtam am na moo nekkoon tey ponk Rinku mi ak revue joxe dig daje ba ëllëg incha allah di souhaiter en attendant suñu gaynde yi bonne chance Aïcha merci beaucoup ah di leen rappeler tey jii nii laataa ñuy dugg ci ñaareelu ponk waxtaan bi ak euh, Aïda Mbène ci point du jour politique euh, di leen fàttali ni RN collection moom moo moom moo jaar ci t-shirt mm. euh, tey jii nii donc ki nga xam ne moom mooy Mamor élégance moo jaar ci. Mm. yére bu yànj bi nga xamante ne ni moom la moom la. mañoon Aïda la sol ca kanam tuuti dinañ ci ñëwaat jox leen numéro téléphone Mamor élégance <laughs> man tamit man tamit ngoon ngoon dinaa dem nu ni mel ci plateau yooyu mais en attendant RN collection. bu leen fàtte ne am na benn jeu concours bu ñu lancé woon keroog moom mooy dem télécharger li nga xamante ne nii moom mooy application wu RN Collection euh, euh, de téléchargement yi donc ñaari application yi damay am problème wax leen euh, dafa anglais wi de trop te man xam nga man olof olof olofal laa xam donc yi nga xam ne bu ngeen yoree Android wala ngeen yor iPhone man ngeen fa dem télécharger li nga xamante ni moom mooy application bu RN Collection bu ngeen ko télécharger ba pare da ngeen koy capturer envoyé ko ci numéro RN Collection yi nga xamante ni moom ngeen di gis ci suufu écran bi après dina am ay neexal yu am solo yu ngeen di gagné parce que déjà am na ñaari gagnant yoo xam ne ngoon dinañ jaar ci plateau spécial CAN bi euh, daal di jël li nga xam ne moom mooy kado yu am solo yooyu nga xamante ne ni RN collection jox na leen ko am na mayo am na leneen ak leneen ci biir kado yi gis naa ko ay surprise la mais bu ngoonee incha allah ñi nga xam ne dañuy topp ci match Sénégal Cap Vert à partir de 15 heures Euh, di ngeen gis yooyu nga xamante ne am na solo moo tax daw leen gaaw ngeen dem télécharger application RN Collection daal di ko capturer envoyé ko ci numéro WhatsApp bu RN Collection dinaa leen joxaat numéro bi ci kanam tuuti ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy jeu concours bi en attendant dañuy ànd ak Aïda Mbène ci li nga xam ne moom mooy point du jour politique. Mm-hmm. ginnaaw bàkk bi daanoo. <laughs> <laughs> merci Lola Laye Fall moom il a tout compris euh, xam naa di nga xoolaale régi bi ak euh, illustration wu ñi nga xamante ni moo di jeunesse bi euh, jeunesse bi nga xamante ni tey sànq junj naa ko Ameth Ndoye muy ci élection locale yi li joxe particularité am moom moo di Ousmane Sonko mi nga xamante ni tey jii dafa dugg dem ca coalition bu Yewwi Askan Wi mu marqué fa paawam tamit wane fa li nga xamante ni moom moo di taxawaayam bu ñu xoolee da koo commencé ci investiture yi ba tey jii ba ñu yegg ci campagne bi dem na ba un moment boo xamante ni bu ñuy xool taxaw seetlu ci mbir mi dafa sax bàyyi campagne am fa nga xamante ni moo di Ziguinchor ñëw fii ci Ndakaaru gunge ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, kon koalition euh, bu ni mel te amul woon xàjj ak bu ñuy xool dafa demoon ba ñu ne ndax Ousmane Sonko dafa fàtte euh, ñi li di boppam ci li nga xamante ni campagne bi la mais tey bu ñu xoolee résultat bi dafa mel ni mbooloo boobu nekk na loo xamante ni kon lu ko fësal bu ñu xoolee ci réseau sociaux yi lay faal au niveau de la euh, régie mais photo bi nga xamante ni ñu ci bëri euh, partagé nañ ko euh, gën koo wane ci toogaayu Ousmane Sonko mais tey Sénégal dafa am beneen dafa am 109 nu ma koy waxee ci ci wolof maanaam daal dafa jël mbubb ba ñu xàmmee woon ni ay mag ñoo ko daan sol tey ñu solal ko xale bu ñu xoolee au niveau de Ziguinchor Ousmane Sonko tey gagné na fa ki nga xamante ni moom moo di Benoît Sambou gañe na fa ki nga xamante ni moom moo di le maire sortant mi ngi noonu photo bi nga xamante ni un peu euh, fu bëri ci réseaux sociaux yi dañu gis ñu ñu wane ko euh, askanu Sénégal nag wane tey seen mbégte ci ñu gis euh, jeunesse bi ak tey ni ñu ñëwee Ousmane Sonko jiital leen ci ginnaaw wàll wi ñu gis également ay jeunes. gagné euh, ci yeewu askan wi localité yi gën a bëri tey fii ci Sénégal bu ñuy xool tam euh, ci ci mbir mu ni mel euh, au niveau de Golf Sud moom Khadija Mahécor Diouf ni ñu koy gisee nii xàmmee nañ ko ci mbirum Sonko Adji Sarr moom moo génnoon di artu ki nga xamante ni moom moo di Adji di ŋàññi li nga xamante ni moom la duggee ci histoire Sénégal ci lañ ko découvrir Khadija Mahécor Diouf daal di wane détermination wane li nga xamante ni moom moo di bëgg-bëggam en tant que femme mu nekk benn surprise euh, euh, en quelque sorte ci ñu gis ko mu gañe tey maire bi mu nekk jeunesse boo xamante ni tey jii ñoo fas yéene indiwaat lu bees euh, fi nga xamante ni moom moo di ci ci ci beneen carte bu yees ci politique bu Sénégal niveau tamit mun nañ ko wax ci réseaux sociaux yi tey bu ñu ko xoolee moom tam ràññeeku na te moo ne dey bu ñuy xool ci campagne yi ràññeeku woon bu baax moom mi nga xamante ni moom moo di Issa Laye Samb làpp fa làpp yi metti ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr daal di jël mairie bi nga xamante ni euh, kon moom moo di mairie bu yoof euh, ñuy wax à peine 30 euh, ans rek tey bu ñuy xool moom la rek daal di am Issa Laye daal di gagné li nga xamante ni moom moo di kon élection yi ci mairie bu yoof bëri nañu tey bu ñuy bu ñuy xool tam jeunesse bi seen engagement ñu fësal ko ci li nga xamante ni moo di élection locale yi te pourtant ñu ci bëri tegaloon nañ leen ay ndëgg sërëx parce qu'on parlait ci caution yi nga xamante cheroon na ci ñenn yi nga xamante ni ñu ngi leen doon bloqué on parlait tamit ci au niveau même ci vote yi carte électorale euh, carte électeur yi nga xamante ni euh, yaakaaroon nañ ñu bëri jëluñu ko alors que jeunes yi dañ koo ngànnaayoo woon toogaaleeg moom boo demee ci yenn euh, bureau de vote yu ma jotoon wër dama gisoon jeunes yi ñoom ñoo fa fees dell dem teel a ñëw laata matériel vote yi sax di ñëw toog ngir mën a dem ci ban gàcce fal seen ay maire bu ñu demee tey ba tey fi nga xamante ni moom moo di ca Géejawaay bu ñu fa delloo Ahmed Aïdara euh, daal di tamit wane boppam ñëw indi fa loo xamante ni lu kenn xaarul woon la ba tey ci yeewu askan wi parce que sama ndox teelu wax maa ngi wax ni euh, maire yi gën a ndaw yi gën a jeune yépp yeewu askan wi moom moo fa indi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa toog tey la jeunesse ñu leen au devant de la scène quand pour li ñu doon gis bu njëkk mu am lu ci coppite parce que gis nañ ay maire yu toog 12 ans maire yu toog 7 ans te tey li nga xamante ni moom lañ doon seenu gisuñu ko fa suuf si di koy paccoo li nga xamante ni moom moo di euh, voilà alalu askan wi itam ñu koy wasaare ñu gis ci Ousmane Sonko génn ci génn bu am solo ne képp ki nga xamante ni yeeyu askan wi fal na la tey jii ñu ngi xaar ci yow nga def gestion bu transparente euh, sobre vertueuse te kenn ku ci dugg tàmbali itam euh, di jël suufu askan wi wala alalu askan wi itam di ko dugal fudul yoon ñoom dinañ jël seen ay devant ngir mën a euh, kon rëkk seen digg tey bu ñu xoolee ci ci ci ñi nga xamante ni ñoom lañu fal bu ñu demee itam xool ko ci fii nga xamante ne moom moo di Dakar Ziguinchor dem ba ca diwaanu Thiès on parle là-bas également du docteur Babacar Diop baaba Babacar Diop également mi nga xamante ne làpp na fa ki nga xamante ni Talla la euh, nekk maire bu bees bi moom itamit euh, mun nañ ko boole ci ndaw yi nga xamante ni dañoo wane beneen xar kanam tey ci ci Sénégal ñu mën a euh, kon wax tey li nga xamante ni moom moo di yaakaar bi également ci Ngor nekk foo xamante position bu stratégique la euh, ci bu ñuy xool nag ci mbirum wat wi on parle là-bas jeune bii di Maguette Ndiaye moom mi nga xamante ni euh, fi mu nekk nii moom moo euh, kon toog ca boppal commune ba Ndofane Lagem tamit ñu nekk ci département bu bu Kaolack ñuy wax Adi Diaw 35 ans képp la am moom également wallu Sénégal sax moom moo ko jiital moom moo jël li nga xamante ni moom moo di kon mairie ba fu ñu mel daal di jëlee ki nga xamante ni moom moo directeur général grand train bu Sénégal Sénégal euh, nekkoon ancien DG bu société infrastructure bu euh, réparation bu naval bu Dakar euh, moom itam jëlee ko ci mairie boobu nga xamante ni yàgg na fa buñ leen di limal un li nga xamante ni moom moo di ba tey ndaw yi nga xamante ni foqati nañ mairie yi bokk na ci Souleymane kamara nekk ci si Sicap Liberté 6 moom également moom moo ko jël ca yëmbal ñuy wax Babacar Ndaw moom moo di yëmbal nord moom moo daal di jël raw gàddu ga ndaw la itam jami Jamil Sané ca Parcelles Assainies suñu maire bi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi wax fan la jógee fan la fàkkee ci làng gi te campagne yi ñun ñi dëkkee parcelle ñu ci bëri gisuñu ko ñu mel ni Yewwi Askan Wi dafa wane beneen facette wane beneen kon euh, taxawaay boo xamante ni un peu ça a surpris les sénégalais tey ba tendance yi njëkk kon euh, wàcce euh, kon foofe ca parcelle ñuy wax ni Moussa Sy mi fa yàgg loolu tey kon moom Sané moom moo jël raw gàdd gi ci kawam Boubacar Diallo jàll ñu demee ca Cambérène également moom lañ fa moom lañ fa tabb Pape Sow ca Sangalkam tam benn jeune la euh, ñu gis ko xam naa nataal yi yëpp waroon naa leen ko teel a jox ngir ngeen découvrir maire yooyu nga xamante ni ñu bari umpale nañ ko Baara Gaye ca Yëmbal Sud gis nañ ko Baara Gaye mi nga xamante ni askan wi dañ ko wóolu également euh, falaat ko ñu gis ko nag euh, mu am beneen particularité également campagne bi duggalante ak askan wi nekkanteeg ñoom di toogandoog ñoom di defatak ñoom mu mel ni jeunes également dofatuñu xam différent te xam nañu ñu ñu war a mën a jëflanteel euh, Khadija Mahécor moom laa doon wax sànq Biram Souley Biram Souley Diop macha allah buñ ko fàttee ci euh, Thiès noor ak euh, docteur Babacar Diop mi ma wax sànq ca ville bu Thiès waaye tam Benno Bokk Yaakaar buñ ko fàtte des ginnaaw ndaxte jeunesse am ki yoroon ki nga xam te ne moom moo di Cogère mu di kii di Thérèse fay moom moo gagné pour la deuxième fois li nga xamante ni moom moo di foofee ca Njareer nekk loo xamante ni c'est une première quand ñu xool benn benn jeune foofu euh, gagné maanaam euh, gagné gagné waat foofu c'est une première te moom ah, moo ko def euh, voilà jeune la ah jeune la <laughs> jeune jeune jeune la non damay laaj rek man parce que man ba ma xamee ba léegi treize jeunes la waa ba jamono ba muy nekk université la doon xëccoo cogère ba euh, jël ko ñu pare yóbbu ko case des tout petits pare mu dem ca fon FONGIP également ñu gis ko ñu ne bilan am tey. bi ngeen wax ni am ngeen ne 2012 cogère ki ko yor dafa mel ni. Moussa Sow dafa ñàkk fële de. Moussa Sow ah. mhm. voilà mi ngi noonu kon. am li ngay wax ni 2012 la woon de <laughs> ñu ngi ci 2022 ça fait 10 ans. <laughs> te université lu mu gàtt gàtt gàtt ku fa nekk xanaa duggee nga fa. ay 20 <laughs> ku nekk université 20 ans booy 20 ans booy booy booy ay lendemain mag la booy. jeune la si jeune si jeune ci jeune yi Thérèse nañ ko boole ci jeune parce que jeune la ba tey. alors man Ahmed kon mu mel ni euh, yeeyu askan wi dafa jël benn euh, benn doxalin wu yees maanaam jiital tey ndaw yi ci boppal maire yi te maire yi gën a mag tey ñoom ñoo ko jël Kër masaar maire ba maire ba fa nekkoon dem na xale bu ndaw te ñoom waaw Kër masaar interpellé nañ ma mu ne pourtant de ñun euh, moom da doon romb fii naan voté leen ma de soo leen ma voté bëri ci réew bi mais gëmuñu ko woon mm-hmm. mais tey moom moo jël à notre grande surprise euh, li nga xam te moom moo di mairie bi ma bëggoon laaj euh, tey euh, c'est-à-dire lan moo waral tey coalition Yewwi Askan Wi doxalee ni ni mel ki gën a fës tey ci maire yi mooy Ziguinchor Ousmane sonk moom moo ko jël ña ca topp ñëpp tam nekk ci gox ya goxaat yi ay jeunes lañu ñu fas ni soppi li nga xamante ni moom moo di xar kanamu maire yi dafa nekkoon coalition Yewwi Askan Wi lu tax mu doxal ni ni mel. Uh-huh. réponse bi c'est très simple. Uh-huh. maanaam coalition Yewwi Askan Wi ay ndaw lañu. Uh-huh. même conférence des leaders ñu ngi fay fekk ay ndaw lañu. Ousmane Sonko 46 ans bu baree ba bari. Déthié Fall xam ngeen ne 45 ans la am. Birame Souleye 44 ans. Mamadou Djité docteur Mamadou Djité ca Thiès Thiès Ouest amul sax 40 ans. ay ndaw lañ. donc naturellement <laughs> ñoom ñoo nekk les candidats amuñu leneen lii la ñu am. et ils sont compétents seen loxo set nañu. ñoom la ñu teg ñoom ñoo gagné. donc ñun euh, le choix entre choisir ay ndaw wala choisir pas yi ne s'imposer pas chez nous parce que ñii la ñu yor. te ils ont euh, li ñu wax naan seen xel ak seen xalaat yëpp. tourner vers l'avenir tourner vers euh, l'avenir pour que Sénégal mën a am ndam ci mhm. lépp loo xamante ne ñu ngi ko ko jox mhm. muy ay ndaw yoo xamante ne xam nañ ne par exemple ces jeunes la mhm. mu leer leen ne au moins d'ici vingt ans encore ils peuvent servir leur pays ça ne veut pas dire que fu ñu toog dañ fay toog vingt ans non parce que lépp mooy ci suñu ah, projet bi ñu am rek voilà mais juste pour dire que lii la ñu am muy ay ndaw yoo xamante ne ils très bien formés am na ñoo xamante ne au début bi mbir yi di am boo jëlee fu mel ni Pastef dañu wax ni dañu bëri ay xale sàngam sàngam. tey ñu leen woon. voilà mhm. donc pour wan ne mais quand on te dit que tranche d'âge Sénégal boo ko jëlee. dañ naan le 014 de 14 à 65 ans mooy ñi nga xamante ne dañoo bari lool lool lool lool. Mm-hmm. mais naturellement donc parti politique yi si les jeunes prennent leur responsabilité. Mm-hmm. ndaw yi bu ñu jëlee seen responsabilité xam enjeu yi nekk ci politique xam na ñoom rek ñoo mën a changer situation bi nga xamante ne moo nekk ci réew mi exemple bi ma lay jox koo xamante ne am nga 70 ans. Mm-hmm. ban défi moo nekk ci yow pour nga war a régler ndaw yi seen problème yaa ko war mën a régler. assemblée nationale par exemple. nañ jël ku mel ni Moustapha Niass c'est un exemple waxuma ci dara pour lu ñaaw mais c'est un exemple nañ jël képp koo xamante ne rek yow fa nga nekk par exemple yaa ngi jëm 70 75 jëm 80 80 ans. Mm-hmm. ñooñu vraiment nañ waxante dëgg ban défi la ñu am ca la ñu nekk pour na ñoom ñoo fi war a toogaat pour servir ndaw ñi fi nekk. des fois dañ naan expérience bi dina tax ñu war leen a mën a dénk. yéen ñi parce que ndaw itam ñi am expérience yooyu xam nga lan laa leen gëm très honnêtement nga xamante ne tey jii nii am nañ 75 jëm 80. ils peuvent servir de conseil ñu nekk posture boo xamante ne dañuy nekk par exemple conseiller wala sàngam mun ni ñu nekkee foofu mais ñi nga xamante ñooy wàcce ci terrain bi ay ndaw la ñuy yaa ngi wax léegi loo xamante am na solo bu du woon ndaw est dina ko man gis ngeen euh, Ousmane Sonko li mu mu liggéey ci campagne bi yéen tey da ngeen xëy couvrir ko cangoon nga gis ko Ziguinchor mu jógee Ziguinchor nga ne Ousmane a ngi Ziguinchor ci suba nga gisaat loolu ndaw a ko man engagement boobu ak doole jooju ndaw moo ko mën parce que Sénégal fi mu ne nii foofu ñu joxaat ndaw ñi seen gët il est temps nag que ndaw ñi aussi ñoom ñu xam ne ñoo fi ne. ñu xam ne ñi ñu fi doon nekk dem ay 60 jëm 70 ans réglé wuñu suñu problème pendant plus de 60 ans est-ce que ñooñu la ñuy continuer di bàyyil réew bi je pense que no donc c'est force aujourd'hui doit être aux jeunes. te ñoom sax waxal nañ ko seen bopp askan wi ndax nee nañ seen yaakaar dañ ko jël teg ko ci yeewi askan wi te eh, élection locale yi benn la ci eh, facteur bi nga xam te dina leen permettre ñu xam ndax ndaw ñi dinañ leen jox kóolute eh, ngir ñu jiite leen atum 2024 ci présidentielle yi nga xam ni moom la ñu dëkk man foofu dafa am lu am solo yoo xamante ne yaa ngi koy wax tout à mm-hmm. euh, mën naa laajaat Ameth ba tey ci beneen affaire Ameth est que gis nga Sénégal ngoon gi nga gañe effort yi am ñëpp yëg di la tàccu nga jël kàddu ne leen hey musique beeg pecc mi na wàññeeku dañuy liggéey nga ne leen hey ku ma gis mu jël un mètre carré ci suñu coalition bi ku ñu fal man maa lay porter plainte ku ko gis c'est-à-dire Ousmane Sonko dañ ko diaboliser tellement ci discours am na non ñëpp benn lañu ngoon gi mu gañe la mettre en garde ñi nga xamante ne ñoom la àndal. mettre waaw xam nga nag loolu moom mooy li ma mooy attendez nu xaaral xam nga mooy sànq li waxoon en politique on juge jusque là sur les actes dina ko amam du am xam a Macky Sall parfois acte yu mu posé woon ñu ne kat amul suivi est-ce que dina am ak amul bokkul kooku li ci kanam la peut-être fii un an deux ans dinañ fi toogaat dinga nga ne ma bërëb sangam kat gis nañ fa meeru sangam def na sangam quelle a été notre réaction. bu boobaa dina ci mën a mais c'est man je me dis ma ne il a intérêt à le dire parce que li mu jaay moom ak coalition bi yëpp les sénégalais moo di mais yi nekk fii actuellement ay sàcc lañu. Mhm. jël nañ seen i koppar dundee ko. donc moom aussi bu jaayee loolu ba nit ñi jënd ko mhm. il a intérêt à signaler que yéen ñi nga xam te ni aussi jaay ngeen li nga xam te ni quand même nit ñi jënd nañ ko bu ngeen defee safaan aussi daañu ko daañu ko fësal ci campagne bi mu rombee ci ci Lat ak Aliou Sall mu <laughs> je suis totalement en phase mhm. dafa def li mu war a def mhm. maanaam li ñuy xaar ci moom li tax ndaw yi wóolu ko ba na ko kat yow kat yaa ngi fi mais amu fi woon loolu nouveau tax man xam nga fi ma leen bëgg wax innovation ak nouveauté bi nga xamante ne am na ci discours politique ak ci démarche ak comportement parce que nit ñi par exemple dañ dañ lay fal dara wala nga nga nga ñu nommé la dara nit ñi di pëcc xóot di fecc naan diw nañ ko sangam sangam ça se comme ça non non non non parce que c'est un défi commencé laa tuddee ay sabar ah, am na sa ay kiw yeew yu commencé sabaru démb am na am na euh, am na am na benn benn kilifa ci réew mi daf maa mere ah. li mu ma meree mooy il dan dans dans ci affaire tuddee yooyu daf ma contacter ku tuddee na ko keneen koo xam ne du ko wax ba mu am mumba mumbaay mu rëy ci réew mi yàggul dara ci mois de ci ci ci année ci 2021 bi mm. woo ma ne man day sur telle chose Ousmane Sonko laa bëgg a jox lom de l'année homme politique de l'année parce que vraiment donc Ousmane nekkul ci yooyu par tooñ rek ma ñëw ne ko waa yow diw de nee na xaw ma dalaa bëgg a def homme politique dala ne mu ne ma Sadiq yooyu jarul sax muy egsi ci man bloqué sax nekkuma ci yooyu waa ji ma ne ko ne Ousmane newul ci yooyu waa ji xaw ma mere def ko keneen def ko mu Mumbai télévision wane ko mu mu mu mu bàq ki nga xamante ne moom la choisir ay rey jàpp ma mm. parce que moom bi mu ñëwee def na ma ñun bi ñu étudier lépp ki mën na nekk homme politique mën ta nekk keneen Ousmane Sonko la. après mu changé. mais loolu aussi lu tax ngeen bañ ko tamit. ñun nekkul reconnaissance boobu ki am ba ci yow wax la ko loolu aussi y a rien de mal je pense bien que. ñun suñu op xam nga nit ki nag am na lu bu ko neexee mu ne man sama projet. ñun ñoo nekkagul ci loolu. taluñu ko pour l'instant maanaam bis buñ ciy nekk. non il a rien dit ñoo nekkagul ci loolu. maanaam wala xaar bàyyi ma ma ñëw mën naa laa xanaa nag yow am nga sa choix. Ah. ni nga yow am nga sa choix non. bien sûr nous aussi nous avons notre choix xam nga notre choix mooy la Sénégal dañoo toll ci defar ko bokk na ci li yàq Sénégal ma wax la ko tey mm. tey jii nii bëgguma sax tudd mu mel ni damay attaqué am na lu ñu fi organisé boo xamante xaw ma lanu entreprise mës ngeen a gis koo xamante ne par exemple il est dans ko a war a defar ci dëgg te bàyyi ay affaire de yow yaa fi falu parce que am nga tur ñu profité ci ne kañ la jox la sàngam kat nga ñëw euh, ñu xam ne kat yaa fi ne loolu amul demalul réew mi kat loolu bokk par exemple pour que xam nga lu ñu bëgg liggéey historien bi loolu aussi amoon am na fi kenn koo xam ne malheureusement malheureusement après sénégal yi dañ koo weddi parce que dafa changé doxalin. mais justement muy muy muy muy muy muy Idrissa Seck. non moom ci wàllu woowu changé wul. Mm. ci wàllu woowu moom wax dëgg yàlla ba léegi noonu la voilà. Mm-hmm. moom doo ko gis ci benn événement wala manifestation wala Idrissa Seck lañ tuddee drapeau nangam wala soirée nangam. Mm-hmm. musul am loolu moom ba muy débuté carrière politique am la ko bañ. mais parce que man li ma gëm. Mm-hmm. mais dafa am yeneen yoo xam ne daf ci sooxe li ma gëm. li ma gëm man yooyu nag mooy yi nga xamante ne moom la ñu war a gis nga Sénégal. Sénégal dafa sonn. gis nga soirée yooyu ak xawaare yooyu yañu ñu ciy yàq. ak ya ñu fay def nga xam ne puukare la ñun wax dëgg neex yàlla. tolluñu foofu taluñu loolu xam nga luñ tal sénégalais bi nga xamante ne mi nga xëy fii may waxeek yow nii man ak yow ñu toog nii di kaf di tal est que am nga am na koo xamante ne fi mu ne nii mi ngi xalaat moom nan lay def ba ndékki. am na koo xamante ne mi ngi xalaat tey parfois nga génn fii man loolu bokk na ci nga xamante ne mooy yi ma mënta supporter. parfois nga génn gis gor. wala man suñu ñu nekk surtout yow yaa ngi ci média bi xam nga ne lii ma wax day am parfois am góor xamante ni dana la woo ci suuf ne la amul dara ci kër gi. loolu la ñu war a régler fekk na yow ci guddi gi am na foofa dem nga foofa naan wala loo xamante ka nga jugg fa benn cinquante mille alors que sénégalais yi ñu ngi souffrir. problème yooyu mooy sangam kaa ñu invité kii moom moo war a nekk homme politique sangam wala homme sangam de la non pas dans mais Sani bu ñu dellu Fresh bu mu doon wax ni que moom ngeen. changé daay dara xam naa ne dina leen yéem waaye yooyu du ak ñun d'accord du question de daan xam nga question de hmm. xam nga nit ki bu la woowee te wuy woo ko ne ko ñun dañuy liggéey parce que li est-ce que xam ngeen réew yu réew yi développé hmm. su ma la waxee gis nga processus de développement ça prend énormément d'années hmm. ba pare dafay laaj am ñoo xamante ne dañuy sacrifier wu pour loolu mën a nekk te nit ñi dañoo war a tàmm liggéey xam liggéey. ah man de man de j'ai fait j'ai fait une année une année dans un autre pays boo xamante ne du Sénégal. Hmm. dafa am benn bés. sama première semaine de de travail foofu rek ma xëy muy taw taw bu metti taw bu metti ma ne ah taw bu metti bii de moom su ma ci def tardé foofu grave parce qu'ils son très exigeants ci heure yi bi ma egsee maa ngi am retard à peu près trente minutes. Hmm. biñ ma laajee expliquer lan moo xew man leen non da taw. ba pare tramway bi xaw a am retard te moom laay jël looloo waral ma tardé ñu ne ma d'accord amul problème fin du mois dañu ma dagg 30 minutes yooyu ma tardé. donc loolu ngeen bëgg instauré maanaam nit ñi faw ñu liggéey. Hmm, li ñu instauré ci liggéey mooy nit ñi faw ñu tàmm liggéey. parce que ci liggéey dañuy wax ne dañuy wax ne le travail et la dignité bi gën a rëy. Hmm. bi doomu aadama mën a am. Hmm. exemple ma leen siy jox mooy. ndaw ñi tey saa su ne buñ paree lu ñuy wax amuñu. pourquoi ñu naan amuñu liggéey dañ koy def nii rek parce que dañoo bëgg a liggéey mm. parce lan mm. mooy assurer li nga xamante ne mooy seen dignité ak seen ascension sociale lañ cay am sagal seen bopp sagal seen waajur yor njaboot yor kër parce que mooy aspiration wu ñëpp mm. loolu nag pour nit mën ko am dañ lay former forme bu baax former bu bu heure liggéey jotee ñu liggéey mm-hmm. sérieux ci liggéey mm-hmm. boo xoolee livre livre Ousmane Sonko yi mu bind yépp mm-hmm. cadre liggéey def cee ñëwaat bu baax a baax lan mooy buroog travail bi mu gagné li mu njëkk wax mooy lan dañuy. il faudrait que ñu xam ne dañuy. waaw mais man sa liggéey boobu noonu sa liggéey ba tuddee ko seen programme ah jël ah, amuñ beneen métier lu dul politique mooy seen métier ci politique boobu noonu ñu bëri reconnaître que ne yéen ay kàngam ngeen ñu wala ne ah politique bi ngeen def nii da yéen ñii ay kàngam ngeen ba tax na tey a delloo njukkal nga ne bugguma. foofu dama ciy tontu tontu bu très simple te tontu boobu dama koy àbb dama koy àbb docteur Babacar Diop. Ah. ma koy féliciter au passage. ci yar beeg teggin beeg li mu liggéey Thiès wax dëgg ba yàlla may ko ndam lii. Mm-hmm. bi mu génnee di wax ak Thiès loolu la leen wax mu ne leen tey du bisu ndam tey bisu défi la parce que suñu ndam mi ngi nekk ci bis bu ñu leen delloo liggéey ñu dénk ba ñu réaliser lu ñu bëgg a réaliser à Thiès. Mm-hmm. foofu la ndam nekk ñun lii ñuy wax nii. ak kàngam nga ak sàngam nous ne serons kàngam que bis bu ñu changé Sénégal bu ñu ko joxee ni ko mën a changé. bu ñu ko changé ba ñëpp nangul ñu ko bu boobaa bu ngeen nee ñu kàn kàngam ngeen. ñu mais def liggéey nag looloo laaj bi looloo mu ci ëppal que kaay leen li réew mi dañ ko war a liggéey nangam nangam te yéen ñëpp ay politiciens ngeen ni doon rek du ngeen xëy fenn loolu moom naka nga mën a woowee ay nit ci loo nekkul. mën naa cee wax wax bu très simple. Mhm. déjà euh, politique. Mm. au Sénégal boo dee. remonter origine mu politique mooy naka ngay fexee ba gérer sa fi nga dëkk ba mu ñoŋ ba développé wu. Mhm. donc ci wàll woowu. Mhm. boo dee ñëw ci origine moowu politique. politique lu noble la. koo xamante ne mi ngi sonnal dëkkam pour dëkkam avancer lu noble la xaaral rek. nga ñëw non non maa ngi ñëw maa ngi ñëw lu noble la. léegi kan mooy xëy na man awma benn mbir mu ma def lu dul damay toog rek. bu activité politique fee amee ma dem bu activité politique amee fële ma dem alors que amoo benn liggéey defuloo dara yow nekkoo liggéeykat ñun waxuñu loolu. d'ailleurs yow luy sa liggéey. fi mu yow bàyyi nga média yi. <laughs> bu dul wër wër nii di ci wax nii. <laughs> amatoo ci benn soxla. Ah, fooy xëy dinaa leen tontu ñaari tontu. jot na TV ku ko moom. <laughs> gis naa ko daal euh, Ahmed après ñu ñëw ci leader yi. ay dara. Eh, Aïda yow Aïcha bis bu ngeen bindee bis bu ngeen bindee livre hmm. wala ngeen bëgg a bind livre hmm. bëgg mu génn hmm. ñëw leen Harmattan Sénégal bokk naa ci ñi nga xamante ne mën naa leen koo saytul ci équipe bay cay liggéey foofu ah, pour wan leen ne lii mën na génn mënta génn xaaral ñaareel bi. Sénégal damaa yor tool bind livre tuuti lañ. damaa yor tool boobu du bëri client. waaw déglu ko mu wax la li muy liggéey dama xam ne bindum liggéey bindum livre fii Sénégal. <laughs> man maa ngi nii di bind livre dinaa dem ci moom. mais nag mu yeggali <laughs> waa c'est-à-dire continuer ndax ma mën a xool bi ma ko xool ma xool ko. ma tax ndax ma mën a tëj. ay dara xam nga tax ma xool la xool bi <laughs> man en fait. sérieux non déglu ma s'il te plaît du attaque du dara de mais maanaam Sénégal ñoom culture ñàkk a maaka bindum livre loolu Sénégal dañ ko fi gis. loolu de beneen débat lay doon te bëgguma mu doon beneen débat non non dama ci dama koy tontu foofu rek ñëw. rapidement dafa wax lu mu xamut moo tax ma xoolee la ni ma la ah, wax. d'accord kon baax na. c'est-à-dire que pour nga mën a wax ne Sénégal ñi ngi bind Sénégal ñi ngi bind. Mhm, ah. waaw man moo tax ma ne la yow kañ mujjee lire livre. mu def seen man man seen seen livre bi laa mujjee lire. voilà léegi Sénégal dañuy bind comme pas possible. surtout xale yi démb ci guddi. la am koo xamante ne mi ngi mooy waaj a yónnee ñaari livre yu mu bind pour ñu ma yóbbul ko ko Armaton mm. dañuy bind bu baax a baax Assane Sarr exemple la ma la bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. xam nga luy problème bi mm. moo tax en plus mbir mi question bi du woon foofu moo tax parfois da ngay extrapoler li ñu doon ñëw mooy ci ci lu ma ne wax naa la ñu dem hmm. ñu liggéey ba na mu demee na mu demee wul yow xamuloo nekkoo ca milieu ba hmm. c'est autre chose léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne mooy ba tey activités yi gars def moo tax gars yi dañuy gis ay nit ñi rek mënuñoo xam la ñuy def hmm. kenn ci ñun toogul man souvent à titre personnel je pour moi te xam naa ci ñu bare bare bare bare mais guddi presque duñ ko nelaw ndax liggéey fu timis jotee tëju nañu wala nekk nañ ci leneen sëgg ci sa liggéey bi nga xamante ne moom nga am mën naa laa jox ay références yu bare bare bare yoo xamante ne tey ah, tey ay kilifa ñu ngi ci réew mi bokk ci nguur gi seeni livre avant moo génn jaar na sama loxo parce que dama yàlla dafa maa dimbale ma nekk ci équipe évaluation boo xamante ne ñoo ngi ciy liggéey. ñu ñëw ci sa coordinateur bi bi rapidement. Aïcha mën nga dem ci point bi parce que lu muy wax euh, jeunesse ak euh, chair fraîche euh, on voit que comme ni ko waxee répétition lay nekk vous avez choisi la chair fraîche mais si jëmm ji mais est-ce que préparation bi mentalement. la formation waaw loolu xam nga. ndeysaan bi bi bi bi ñuy teg soog a teg pastef ak bi muy ñëw ba tey jii nii dañ naan ay lan lañ ay fonctionnaires la ñuy wax des administrateurs Ousmane Sonko buy wax dañ naan waa ji day liggéey bi moom li mu nekk moom ci lay wax sàng maa rek xam-xam mi nangul nañ ko léegi ci problème politique bi la ñuy wax léegi nag la formation boobu ngay wax ne ba est ndaw yi nga xamante ne am nañu leen est-ce que ils sont formés côté boobu caaxaan sax amu ci parce que ñi nga xamante ne ñi ngi ci coalition Yewwi Askan Wi ngeen leen di dégg ñuy wax ak ñi nga xamante ne tey jii nii fan nañ leen ñu nekk maire c'est sur la base ku ñu doon est-ce que xam ngeen ne tey ñoom yëguñu ko nag man yëgu naa ko parce que je ne pas candidat képp koo xamante ne coalition bi nee nañ diwkat lañ bëgg a teg avant ñu koo valider conférence des leaders dem nañ def enquête ci kooku mooy kan xool moom mooy kan c'est que ñi nekk candidat ñoom yëguñu sax ne ñoom def nañ ah, enquête ci Souleymane Camara da ngeen fàtte woon def foofu c'est autre chose parce que. yaa ngi ñëw ci li nga xam ne <laughs> moom moo indi joow li nga xam ne moo am bi ñu naan par exemple. génn na fi ak effacé dugalaat justement xam nga loolu bi mu amee. Hmm. kan moo ko attaqué. Hmm. bi mu amee. à titre personnel émission directe man la. Hmm. man maa attaqué acte bi. le surlendemain il m'a appelé. ma réattaqué waat bi. tey. bi nga xamante ne loolu am na ba lii am ba fi ñu teg nii liñ naan euh, li nga xamante ne par exemple moo gàkk. Mm-hmm. dina am nu ñu koy rek il a donné son explication ah moom bi mu joxe. Mm-hmm. ñun aussi am nañ suñu explication. Mm-hmm. mais lii yëpp day dugg ci benn biir. léegi nag fi mu ne nii il a une chance lui moom Souleymane. wax dëgg neex yàlla parce que gagné na d'ailleurs ma koy félicité. aw ma benn animosité ak moom parce que loolu bi mu amee gis naa ay nitam. di ma message di kaas lu tax may wax loolu Souleymane amuma ci problème. mais amuma benn animosité ak moom j'en profite pour le dire acte l'a qualifié comme ni ñu mën a qualifier acte wu Macky Sall il a donné lui son explication li ñu koy ñaanal mooy mu am ndam ci liggéey bi nga xamante ne si Sicap Liberté dénk nañ ko ko liggéeyu maire liggéey politique la bu am njariñ boo xamante ne boo ko réussir c'est un très bon travail boo xamante ne tey jii ñoo koy xaar xam nga tax ma ne la dénk ko boppam nag ah. fi mu ne nii waaw ah. kañ moom laa lay wax ah. lu ci ne rek dafa am yoon. man su ma ñëwee ne damay nekk candidat par force. Hmm? damaa forcé pour nekk candidat. waaye bis bu ñu ma falee dénkatuma ko sama bopp. population yi ñoom ñooy dénkaane. képp koo xamante ne dañ laa dénk moom. Souleymane fi mu ne nii mën nañ koo reconnaître une légitimité. légitimité bi mooy daa dem élection. daa di gañe kan la gañe Zahra Iyane. nga xamante ne bu bari bari la doon tuur foofu. Hmm. kon Souleymane dañ koy ñaanal. mu góor góorlu am ndam ci liggéey bi nga xamante ne moom lañ ko sas te waxtaan bi ñu jot a am après yàlla xam na ne am naa yaakaar ne nit ñi dina surprendre parce que xam na les enjeux parce que toog nañu waxtaan suñu biir fu mu nekk bu nawee pas le choix moom xëy na yëggale Ahmed kon dañ leen a sas euh, euh, voilà <laughs> tey kon mu ngi mu ngi noonu point du jour politique euh, li mu li mu jugtee rek moom mooy di Sénégal ak ndawam yu yees nga xamante ni ñoom la ñu kóolu jox leen seen gox-goxaat mm-hmm. kon fii lañ koy nar keppe ba mardi prochain incha allah incha dañuy daal di def tour de table nag ak ak ay question ngir sani daal <laughs> ko wax nañ lépp sëñ bi rek. déedéet. sëñ bi wax léegi kon mañoon la ñuy jox trois questions. léegi léegi ñi ci des ku nekk nga am benn. invité du la ñu wax bët set. waaw waaw yaa ngi jël ay minutes ah, ah, non mais invité du jour bi yéen a ko jàpp ñaari boo waxee ñaari question kon Babacar Kébé yóbbu na samay question ay di la gars yi daanaka dañoo débattre lépp dañoo lim ko mi moo jël lépp ba pare yow gars yi def na la nopp ba pare demal tere rapidement parce que partenaires yi il ñu wax si ñoom tamit il ñu wax ci ñu avancé Ahmed bu ma jaxase waay. non non Mamour il faut wax ko il faut alors ñu ñu fàttali ne Sadiq Top nekk euh, membre communication bu PASTEF moom moo nekk suñu gan ci bët set alors Sadiq ñi nga xam ne ñu nekk waa coalition Benno Bokk Yaakaar nañ ngir wax ni ci wàllum ngañaay gi euh, ci 43 département 32 ñoom ñoo ko gagné 10 capitales régionales yi ñoom ñoo jël euh, presque li ci ëpp alors yéen. lan ngeen di teg comme lu lu nga xam te ni kenn du ko mën a teggi nii li ñu wax dara du ci dëgg. de façon factuelle maanaam ci loo xamante ne mënees na koo teg laal ko. ay PV la. résultat yi nga xamante ne moo génn ci urne yi ñun suñu mandataire signé ko. Mhm. ñoom seeni mandataire signé ko. Mhm. waaye élection yi jaarul ci yoon. mooy li nga xamante ne parce que dañuy ragal ñu am ndam fenn fii ba fàtte organisation élection yi. d'accord yi. l'organisation est un fiasco. pourtant le ministre de l'intérieur nee na tout ministre de l'intérieur du wax katu dëkk Antoine Diome moom xamee nañ ko loolu élection bi déjà mën nañ problème yi ci am le jour J déjà. yéen ñëpp vos reporters étaient sur le terrain. ñaata yoon lañ leen wax ne à partir ba ba 10 ñu ne leen fii élection yi tàmbaleegul. élection bonne heure la war a tàmbali. am ay école aussi ma dolli ko si dañoo arrêté 15 heures pour reprendre à heures. loolu yëpp. mooy wane ne élection yi jaarul ci yoon fu mel ni Thiès noor bi su lay gagné en moom a sax empiété nañ élection yi xam nga lu tax dañoo dem ba mujj gi bulletin wu yeewi askan wi amatul ci yenn bureau de vote yi feuille blanche la ñu jël bind ci yeewi askan wi te loolu baaxul ci ñun parce que ñun dañoo def suñu communication ci bulletin waa ki nga xamante ne moom mënul liir xamul bulletin boobu la jàppoon ci ba xelam bu ñëwee moom ne ñii laay voteel mm-hmm. ñëw gisul bulletin bi lu muy ku muy voteel xamul donc yooyu yëpp muy ay fiasco donc vraiment dans cette élection là boo demee tey jii nii fi nga xamante ne mooy dem am parcelle mooy le même problème mm-hmm. donc pour dire tout simplement que ñun suñuy fay yi nga xamante ne moom la ñu teg mooy mm-hmm. cette organisation de cette élection là fiasco la dara réussir ci waaw loolu yëpp nag mm-hmm. kenn la ak équipe am Antoine ak ñi nga xamante ne les autorités territoriales ils ont échoué loolu leer na ñaareel bi nga xamante ne la ñuy teg ci fi ñu gañee ñun. te moom la ñuy teg di leen ko tontee mooy les procès-verbaux. d'accord léegi gañe euh, ngeen yenn ci commune yu bëri bëri Ndakaaru Ziguinchor ak yeneen ci gox mais li ñu bëri di xalaat moo di est-ce que daañu leen bàyyi ngeen liggéey ndax yéen ñu ci gën a bëri déjà seen i discours ak seen i yenn ci sortie moo di quand même euh, woo leen pour liggéey ak ñi nga xam te ni ñoo nekk gouvernement wala état. xam nga mbir mi c'est très simple. Mm-hmm. Euh, budget mairie dafa am lu ndaw loo xamante ne moom la la état di jox am ci lu yaatu loo xamante ne am nga possibilité dem jëlee li ko sa bopp à travers les partenariats public privé à travers yu baree bari yoo xamante ne yow yaa ko moom dafa war a dellu si sa loxo ñoom bu ñu bëggee ndëgg sërëx gi population yi dinañ ko xam mais li wérte fenn rek laa xamante ne bu ñu ko assuré ñoom mënuñ ñoo tere liggéey xam nga muy fan. Hmm. mooy lépp lu ñuy liggéey mu jaar ci transparence respecter procédures yi. bu ñu ko defee ñun fépp foo xamante ne. Hmm. préfet wala sous préfet jéem nañu faa ndëgg sa rëx dinañ wan ne kat lii du yoon parce que lépp Sénégal li ko régir ay loi la ak ay normes. donc loolu euh, je ne pense pas que war na mën a. avant avant dernière question Barthélémy Diaz moo nekk maire Ndakaaru Ousmane Sonko si Ziguinchor mais ñaari candidat yooyu yëpp ay candidat yooyu askan yu la mais dafa mel am na benn épée de Damoclès bu nekk seen i ndodd mu di kii mu ngi ci contrôle judiciaire kii foog naa le 2 mars war na wuy sa yoon. ça ne pose problème. bu ñu ko dooree délégation spéciale. bu ñu dooree kan délégation spéciale. Euh, ko ci yoon comme ni ñu def Khalifa Sall indi woon Soham Wardini euh, bu ñu defee cas boobu ci moom. lay 2017 du 2022. loolu daal mooy seen slogan bu bees Ameth. lay bee du lay bi. d'accord hmm. lawoon woon mi la. Hmm. loolu moo ci tontu mais j'en profite. Hmm. parce que et c'est très important bu ñu ma ko mayee. dañoo am candidat boo xam ne man ba tey mënuma ci wax parce que c'est avec beaucoup d'émotion. Mm-hmm. Euh, et ça nous a ma ne euh, fait mal. Mm-hmm. mais daf ñu touché bu baax a baax. Mm-hmm. Mm. muy ku mel ni Bassirou Diomaye Faye ca Ndiaga Niaw parce que. Basiru liggéey bu baree bare bu ñuy def Pastef mooy nekk ci ginnaaw di coordonné basiiru dal na teey na am xam-xam mu nekk koo xamante ne principe am c'est inaliénable euh, mais ma ma ñëw rek non dañu xoj ni déjà ngay remercier ay bu ma ko yeggalewul moom lu may tontu ci beneen et ça me tient mhm. parce que tout simplement mhm. dañu koy féliciter ci courage bi mu am dem élection yi di ko félicité également ci dignité bi mu wane ca ngoon nga bi ñu amee procès-verbaux yi avant ñuy wax sax mu féliciter ki nga xamante ne moom mooy concurrent am di ko wax ne nous tout cœur vraiment avec lui ci liggéey bi nga xamante ne tàmbali na ko di ko wax ne ko ñu ngi koy renouveler bu baax a baax a baax a baax suñu respect ak admiration d'accord vraiment ma dernière question consiste ci nga xam moom moo concerne li soxal wàllum monnaie local bi nga xam te nii bokk na ci seen i projet euh, léegi kañ ngeen ci ngeen ndax ba léegi yéen a ngi dëggal seen gëm-gëm ci pro ci monnaie locale boobu. monnaie locale bi tey am naa occasion wax ci. Mhm. parce que biñ ciy wax ba tey maa ngi ci campagne taluma ko woon. Mhm. foofu tout d'abord. Mhm. xam nga bis boobu bi Ousmane Sonko di présenter camp euh, programme man maa nekkoon modérateur. maa doon joxe kàddu gi daf ne. ñun liggéey bi ñu fi bëgg. Ziguinchor war na mën a dem ba am monnaie local boo xamante ne day ñoŋal koomam. Ah, war na mën a dem. a pas parce que ah, moom waxul ne dama fay def monnaie mais xam nga nit ñi nit ñi déjà. loolu leer na déjà ñu njëkk a réagir. xamuñu woon sax déjà mbir mi ma réeroon naa ci ba démb rek maa ngi ci waxtaan ak. léegi kaay ma dollil la. pour wane la nit ñi Ousmane bu ne woon sax dinaa fi def monnaie locale. Mhm. bu boobaa moom day trahir boppam dinaa la wax li tax. Mhm. monnaie locale dama koy proposer. Sénégal dem waxtaan ak ñi nga xamante ñoom ñooy BCEAO mhm. ñu nangul la ko nga mën ko fee def nekkul yow yaa koy décider nekkul man maanaam dama fi def man ma njëkkoon a mooy ban prérogative la maire dëkk war a mën a am ba def ko man a posé amet waxee m'a dit que wa j'attaque toujours ma corporation mais mais aussi mais a jaaxal parce que démb déglu naa Moussa Balla Fofana ci TFM mu ne projet mu ne local bi ci seen biir programme bi la bokk ci programme bi la bokk ba wax na sax ba mu ne mu ne moo nekk ponk 17 xaw ma suma juumul ci ay déclaration yow nga ne war na mën a nekk ah, donc ça aussi est-ce que du am benn jaxasoo xam nga man damaa lire programme Ousmane Sonko texte nekk modérateur texte nekk fa modérateur ma wax leen li nga xamante ne moo ci ne ak moom la wax mm. ma rappelé la ko ma ne mm. déjà amul kenn koo xamante ne am nga prérogative en tant que maire date ne da nga fiy installé local li nga mën par contre mooy fair une proposition ñu accompagner la ci moo am ci dëkk yi nga xamante ne fa la am yépp monnaie locale nag lu baax la ci dëkk bu bëgg a développé wu boo xamante ne dañoo bëgg xam nga loo tax monnaie locale ñu proposé ko mm-hmm. tey laa la koy wax tey moo tax nit ñi wax dëgg neex yàlla man damay bëgg ñuy gëstu tuuti balaa ñuy réagir même ñun sax journaliste ba ci man. bu ñuy réagir ci dara nañ ci gëstu parce que buñ ci gëstoo souvent dinañ mën a am tuuti intelligence xam lu tax ñu proposé ko xam nga mën ne. seen koom bi nga nekkee politicien nag. seen koom journaliste yi loolu léegi vrai politicien seen koom monnaie locale mooy ñi nga xamante seen koom. dëkk boo xamante ne seen koom mën na am doole lool mais amul protection ñu war koo protéger boo demee fu mel ne par exemple Casamance ci large ñëpp nangu nañ ne mën na nekk li nga xamante ne moom mooy locomotive économie Sénégal boo fa demee anacarde am na fa lépp fa am muy loo xamante ne bu ko mettre en valeur def fa ay usine transformation fruitière def fa ay tool lépp dox mbir la moo xamante ne mën na yóbbu Sénégal ci kanam bu baax a baax mais malheureusement foofu noonu étrangers yi dañ fa ñëw envahir ko foofu noonu suñu suñu suñu euh, anacarde bi dama la ciy jox anacarde bi est-ce que xam nga ñaata lañ ciy perte anacarde bi ñooy jaayee kilogramme bi ñu maanaam 400000 francs tey jii nii ñun bu ñu ko amoon mën nañu faa def usine anacarde. ndaamaraas bi ndaamaraas bi. Mm. est-ce que xam nga ne ndaamaraas boobu dañ koy jël di ko exporte de façon brute alors que ñun bu ñu ko jëloon euh, à travers usine boo xamante ne 400 millions dong lay jar. 400 millions ñu def ko fa dinañ mën a transformer ndaamaraas bi ba nga xamante ne bu ñu ci doon am sur chaque kilo tey jii nii dans l'export 400 francs chaque kilo ñun bu ko transformer suñu bopp mën nañ cee am 2000. muy benn chaque kilo laa la wax de au minimum ñaareel bi nga xamante ne lañ ciy am est-ce que xam nga ne boo exporté benn produit yaa ngi exporté waale employé maanaam loo mënoon a def ba say ndaw liggéey fa dans cette zone la yaa ngi koy jël di ko jox ñeneen ñoom ñu koy utiliser pour seeni ndaw maanaam ñun li ñuy jaay fii di ko jël di ñu koy exporté ci wàllum euh, gerte ci wàllum ndaamaraas ci wàllu. produit boo mënta jël ñu jël ko exporté ji ko foofu bu ñu ko fa yóbboo foofu rek xam leen ne ñun ñoo ngi jëlaale ay emploi yoo xamante ne mënoon nañ koo créer fii mhm. jox ko ñooñu ñu créer ko jox ko seeni ndaw ba pare fiscalité boobu ñun ci am ñoom jël ko dugal ko seeni état état yooyu ñoŋ ci ñun suñu état duñ ci ñoŋ bëgg ñun ñu ñoŋ ci moo tax Ousmane Daat pour protéger lii yépp nag mhm. ak homme nga xamante ñoo nekk fii mën nañoo def benn monnaie boo xamante ne monnaie locale la c'est entre nous Casamance boo fi duggee nga xamante ne ñu ngi fiy ñëw bu boobaa ñoom ñu teg leen ay contraintes yoo xamante ne ñu duñ mën a nasaxal suñu koom waa loolu est-ce que baax na ci Casamance wala baaxul ci Casamance. loolu est-ce que baax na suñu koom wala baaxul suñu koom. bu fekkee ni nga ko waxee nii la demee baax. léegi nag loolu incha bu dee noonu la demee a pas de problème. léegi nag problème bi nga xamante noonu la demee. léegi problème bi mooy nga xam ne moo ci njëkkoon wax. gisaat ngeen ma wax ci Moustapha Diakhaté daa bind wax wax tuuti parce que xamuloon luy monnaie locale. démb rek démb rek démb rek moom Moussa Balla foofa nag insisté waat na persisté na ci li nga xam moo nekkoon position may wax rek souvent dafay am lu may tuddee mauvaise foi. mais dafa arriéraat parce que dem nañ ba xam nga nag léegi nag Sénégal nag fi mu toll. Hmm. en 2022 loolooy li ci neex dangay ngay wax dara surtout ku mel ni Ousmane Sonko ay ndawam ya nekk Europe. Hmm. génnee wan la luy monnaie local gis ngeen ko bu ngeen ko hmm. gisul dinaa leen envoyé vidéo bi ngeen am possibilité mais moom dafay am mais j' étais de vouloir dire que boo xoolee parce que nit ñi problème bi ñu bëggoon jox. Hmm. dimension lañ ko bëggoon jox parce que ci campagne la jëm. daat na non day jël affaire fibre régionaliste parce que dañ doon bëgg a wax ji. Hmm. déstabiliser ko diaboliser ko parce que ci campagne lañ bëggoon bëggoon mu ñàkk. ñu ne xool leen Sénégalais localité ak dëkk ba nga xamante ne fa ngeen nekk seen koom ngeen mën koo protéger ba nga xam ne képp mm-hmm. koo xamante ne mu nga bëgg a dugg ci dëkk ba wala bëgg a jógee ci meneen réew ñëw ci réew moomu te du sénégalais ñu protéger ko de sorte que moom affaire yi du yomb ci moom muy jël dund ko yóbbu dafa am seen benn candidat ah, bu nga xam te nii ci Yewwi Askan Wi la bokk mm-hmm. euh, ngeen investiroon ko foofu ci commune bu Ndiabel dans la région de Kaolack moom ci biir campagne yi lañ ko teg mandat de dépôt mu ngi rëbës ci biir élection yi moom moo gagné Euh, sax moom moo gagné ci commune am te mu ngi mu ngi woon mu ngi mu ngi woon kaso alors ñoom ñu bëgg aussi yéen waa Yewwi Askan Wi yéen jàpp leen leen ci xeex bi ngir seen maire boobu nga xam te ni bi ñu koy fal moo ko ci kaso boobu mën a génn. ban dëkk la. Njabel. Njabel waaw bu ñu xamee. Euh, dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax du ñàkk ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu dinañ ci bàyyi xel dinañ ko jàllale. ba xam exactement dossier bi lan que ñun moom toujours li ñu nekk rek. transparence dossier bi mu doon affaire yaa ma neex de. parce que moom laa lay wax déggoo ma ne la. ñu xam dossier bi lu ci nekk. Ah, néew ma ko ba de. Ah, dossier bi lu ci ne. Mm-hmm. suñuy avocat bu ñu ko xamee. Mm-hmm. bu boobaa dinañ ma soog a mën a am posture. Mm-hmm. d'accord bëgguñu fal yuy wurit tamit. loolu koy Ousmane wax na ko. waaw mu ngi noonu ay benn question am pour ñu tëj. dafay ñëwaat ba tey sànq si <laughs> euh, ah, si si jeunesse bi doon wax rek. Mm-hmm. Euh, ñu gis euh, démb li xew fële ci mairie bu Yoff mairie bi nga xamante ne Issa Laye Samb moo ko jël par rapport ak ni ma doon wax sànq rek préparation ak li ni mel ndax ñëw nañ saccagé mairie bi nee nañ jël fa ay dossier administratif est-ce que loolu yéen a ko doon xaar ak naka ngeen ko dundee. waaw dossier administratif moom foo gis ñu jël si ko fa. Mm-hmm. dinaa la wax ñaar. Mhm. technique la xam nga gars yi dañ koy def. Mhm. foo gis ñëw sa case jël ay dossier administratif mhm. wala lay duudu ko def FONGIP fexe ba lakk dossier ya. c'est parce que am na looy nëbb. mais mais mais nëbb nan la fa mu mënee am euh, Sadikh euh, parce que tey euh, yaakaar naa ñoom dese nañ fa ay bés balaa ñuy mën a jox Issa mairie bi. waaw léegi ils ont encore le temps de prendre les dossiers. il faut toujours léegi nag on a kaay ma expliquer la maanaam tey yow boo ñu la joxoon. benn mbir ñu dénk la ko euh, nga war a rendre compte boo dee amul incident bu mën a justifier ne dossier bi amatoo ko dossier bi da nga ko war a indi amul foo mën a jaar pour bañ a indi dossier bi léegi nag comme ñun moo tax d'ailleurs Yewwi Askan Wi seeni maire yi ñu fal foo ñu xalaat ci loolu dañoo war a dépasser dossier physique lépp ñu def ko de façon électronique digitaliser ko ba nga xamante ne amul fu mu bi jaar bay rëcc. Mhm. parce que loolu mooy li nga xamante ne mooy yoon. te jii nii FONGIP euh, Doudou Ka bi mu fa jógee. Mhm. daf ne waaw dafa lakk euh, créer ay affaire ba fi ne nii am na dossier yoo xamante ne kenn gisatu ko. Mhm. loolu te lan nga mën a attewoo tey jii nii boo bëggee rendre compte ci de façon transparente. ci dossier yëpp kon en tout cas c'est une technique man souvent bëgguma di di avancer sur des choses yoo xamante ne maîtriser parce que man sax information bi yow yaa ma ko jox. Mhm. mais lu wér te wóor ça peut être une technique kon nañ ko bàyyi xel. cest à man li ma bëggoon wax naru ma a wax mais da laal fenn fu ma intéressé il faut que ngeen dimbali ñu si xaw ma yóbbante lay doon xaw ma damay laajaale lan ngeen mhm. mooy digitalisation boobu nga wax muy self yi nga xamante ne ni monde bi fa la toll actuellement mhm. ñun Sénégal ñu ciy des léegi je je donne des exemples yoo xamante ni dafa banal benn français par exemple bu jógee France ñëw fii Sénégal su su su extrême réeroon wala mu soxla extrême fii de naissance bu Sénégal il n'a pas besoin muy yónnee waat ba Paris ñu koy yónnee wala muy delluwaat ba pare pour uti ko parce que fii lay toog dugg ci téléphone am. demandé ko ñu jox ko ko scanné ko par mail mu dem tiire ko dem déposé fi mu bëgg déposé est ce que mën ngeen ñu dimbali ngir yàlla war a suuli ci Sénégal bu ndaw bii benn doomu Kaolack bu nekk Dakar soxla extrait de naissance wala ca tribunal ba ca ca casier <laughs> judiciaire am demandé ko ci téléphone ñu yónnee ko fii mu dem tiire ko dem doxi soxlaam est ce que mën ngeen ñu dimbali ci informatisation li nga xam ne moom mooy suñu état civil yi self service yi ñu mën ko am en temps doomu dëkk bu nekk fa mu mënti nekk di ngeen ñu wàcceel. maire yëpp nag paye maire yëpp non je parle je parle de man li ma si li ma si gën a intéressé mooy. Mhm. dinañ fi dindi rang bi. Mhm. këy yu métti yi. Mhm. dinañ dindi Mañoon Aydara war a xëy si fii def si bët set. demander permission pour dem Kaolack pour jëli ji këyit. wallaay a dem Kaolack ne pour jëli ji sama externe. xoolal dimbali ñu tamit ci beneen aspect boo xam ne. ci seen xeex yëpp loolu moo mës a nekk xeex bi. muy la corruption. parce que loolu source de corruption la bëri na ñoo xamante ni tey jii seen i këyit dañ ko falsifié wala nangam ak nangam tayal a dem bi il préfère dem ci benn état civil Pikine mhm. fay fa ñu xoolal leen passe vide créer leen fa këyit parce que Pikine la ñu dëkk léegi mhm. fa la ñuy liggéey fa la ñuy def lépp tabaski ba tabaski la ñuy dem Diourbel wala la ñuy dem Ziguinchor corruption boobu tamit di ngeen ko xeexaale ak li nga xamante ni moom mooy anomalie donc loolu moom xaw ma lu ngeen ci lu ngeen ci namm mais bu ngeen ñu ci dimbalee te yàlla tax mhm. dinañ def benn pas bu ngand ci avancement surtout ci li nga xamante ne nii moom mooy rapidité réduire parcours bi nga xamante ni moom la sénégalais yi di soxla ci seen i ak leneen ak leneen xaw ma lu ngeen ci namm nag mais dimbali leen ñu yàlla tax boo demee lii programme bu roog bu Ousmane d'ailleurs bi muy def présentation wax na ko bokk na ci yi nga xamante ne moom daf ko fay def Ziguinchor ku mel parce que dafa xatoon ak li am ci ay candidat mais dama lay wax ñoo xamante déglu naa leen gis seen programme proposé nañ ko mm. a proposé na ko. Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara proposé na ko. Euh, Khadija Mayakor proposé na ko Babacar Diop proposé na ko. ñooñu su ma leen jëlee comme exemple je suppose que ñeneen ñi dinañ ci bàyyi xel même buñ ko ko amul woon. ñu bàyyi xel wax ko mën a proposer. seen couleur am si seen kuréel gi am na lu mën a imposer par exemple seen maire ci li nga xam ne jàpp nañ ne seen prérogative la te ñu mën ko def ñu maasay def ci parce que bu dajee nag ci lay gën. maa xam nga affaire bi. terme imposé bi day xaw doy waar dinaa la wax li tax xam nga xam nga li nga mën rek mooy nañ kaa leen toog waxtaan puisque ñoo bokk yoon mhm. ñu ne kat lii mooy li gën Sénégal ñu ne ñun ñëpp nañ leen ci tënku muy benn mhm. genre convention entre nous entre les maires surtout man sax dama jàpp ne wax dëgg neex yàlla xanaa maire même bu dee benn boo ko yaakaar la bokk xanaa lu mu lu mu lu mu ñàkk a yeewu yeewu war na mën a nangu ne loolu luy avancer localité am la pour man war na ñoo mën a organiser woo de sorte que ñi nga xamante ñoom ñooy maire Sénégal yépp ut benn partenaire boo xamante ne moo war a gérer loolu yépp gérer leen ko ba nga xamante ne partenaire bi nag na nekk sénégalais parce que suñu man man man ci élection yi laa gis jeune Haïti yoo xamante ne bu du woon ak ñoom yàlla xam na ne ñu ñuy def ñu loo xamante ne duñ ko gis xam nga ne hmm. pour wan la ne suñu gars yi xam nga ne bureau de vote Dakar yi Dakar laa a def dans les états civils lu mën a nekk la hmm. gis nga bureau de vote bi ñu naan compté bi jeex na bi ñu nee compté bi jeex na juste teguñ ci cinq minutes ñu am ñu toutes les tous les résultats xam nga lu tax hmm. parce que en réalité bu ñu toogee ci bureau de vote yow nga nekk suñu mandataire buñ nee yeewee askan wi un yow ak sa téléphone bind nga un ka toog fële jot ko dugal na ko ci ordinateur bi. Mhm. ci suñu QG yépp gars yi toog. de sorte que dañoo amoon logiciel boo xamante ne boo ko ci dugalee da koy répertorier automatiquement boo paree rek cliquer logiciel bi da lay jox résultat yi. Mhm. ñu xam ne résultat yi moo nekk ci PV yi. moo tax ñu moo tax sur le champ ngeen gis. part teel a jubilé d'accord parce que c'était la vérité des urnes. te loolu mooy li nga xamante ne moo am France France vingt heures président de la république génn daan ne maa gagné wala maa perte. Mhm. mais parce que états nañ la jox. ku raw ci ci ci que ñoom seen vote c'est électronique mais comme ñun suñu bos ce n'est pas encore électronique c'est physique mais bu ñuy def dépouillement bi instant bi muy génn mais dépouillement sax dama leen wax benn mbir boo xamante ne dafa war a mën a ne. Sénégal war nañoo mën a toll ba tey pour dimbali li ngay wax moom mooy électronique bi ah. Mhm. a nekkee noo xamante ne bu ñuy dépouiller pour man dans chaque centre. chaque centre de vote. war na mën a am matériel électronique boo xamante ne danaan fii kat y' a 16 bureaux internet yëgul fépp loolu aussi liggéey la. ñu ne kat y' a 16 bureaux ici. matériel électronique bi defee ko noo xamante ne à travers un logiciel boo xamante ne bureau bu ci nekk bu résultat bi di génn day dugg. ba képp koo xamante ne citoyen nga bu dëkk foofu am nga accès. ci résultat yi waaye amoo accès ci fichier yi parce que doo ko mën a changer parce que procès verbaux yi aussi c'est important bu ko defee nga xamante ne résultat yi day nekk lu instantané ba bu génnee bu wi jotee. Hmm. ñëpp xam seen résultat ñu xëyee ñëpp a liggéey. donc pour dire tout simplement lii la ñu appliqué ñun Dakar dans Yewwi Askan Wi Ziguinchor loolu lañ fa appliqué de sorte que bi paree ñoom fi mu ñun boobu xam nañ ne mbir mi woy na donc pour dire tout simplement lii ngay wax nii. c'est une responsabilité waaye gis nga euh, Aydara dégg la Ahmed mhm. gis nga loolu buñ ko fi dindi woon def mu nekk lu électronique li ñuy économiser ci xaalis sax noo xam ne mu toll lourdeur administrative yooyu daf fi war a deñ ba képp kuy sénégalais foo mën mënti nekk mhm. nga war a mën nga nekk dès lors que nga nekk yow ci euh, administration kii kii civil fichier état civil benn commune rek ba xamante ne fa nga nekk sa boo ko dugalee da nga ci war a am ac ba boo gisee sa tur rek dañ war a indil lépp bu dee da nga war a fay par Orange Money par pour ne pas faire de pub voilà yooyu yëpp nga mën koo fayee noonu yëpp de façon très direct bu ko defee ñu envoyé la ko lii mooy li nga xamante ne ñun loolu moom la ñuy proposé mais nag du yem ci état civil bi de ñun li ñu bëgg li ñu bëgg ñun hmm. même à l'Assemblée nationale bu ñu jotoon mën nañ koo informatiser noo xamante ne tey jii nii bu ñu nee war nañoo def benn benn euh, projet de loi wala lu ñu war a voté mu am langue yu bëri yoo xamante ne dañ ko fay de façon tellement numérisée nga xamante ne dina am koo xamante ne dina ne waa lii lu mu doon mu cliquer ci langue boobu noonu ci biir assemblée nationale à travers leur site ñu expliquer ko ci li mu làmp mbir moomu lan la ba sénégalais bi xam loi bi lan mooy njariñam c'est important duñ fa yam également ministères yi ba dara dootul réer mais loolu mooy am réew noonu la ñuy organiser am réew fii ñenn dañ fay def pointage lan mooy pointage amul kenn nit ku naan la noo ban heure nga ñëw déedéet mhm. da ngay ñëw rek teg sa loxo wala teg sa carte mhm. ñu xam heure bi nga ñëw moo am ci réew yu mag yi boo paree fin du mois xam heure bi nga ñëw heure bi nga wàcc mhm. loolu mooy li nga xamante ne moom mooy doxal am réew loolu mooy li nga xamante ne tey jii nii fa lañ bëgg pour Sénégal dem léegi nag ñun lii ñun lii ñuy wax nii moom lañ doon wax ah bi ñuy def campagne tey bi nga xamante ne jot nañ maire yi ñu suñu ndodd wala suñu matelas naankat jot nañ ko waxoon ko on réitère li ñu engagé woon ne fa lañ bëgg egg ak Sénégal tey lañ gën a mën a wax ne lu ñu bëgg pour Ziguinchor tey lañ ko bëgg a mën a réaliser lu ñu bëgg pour dakaar lu ñu bëgg pour Thiès tey lañ gën a wax ne dinañ ko réaliser ak suñu kem kattan bis bu ñu demee bañ ne nag ne problème am na ñu taxaw ne leen hey kaay leen lii dañoo ne dañ ko bëgg a réaliser lii mooy problème bi kaa leen solution pour ñu mën ko réaliser loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñun te loolu lañ jàpp ne war nañ koo répondre pour Sénégal yi mën a am ndam laata laataa ñuy dem ci anniversaire bi en ah, live Fall ma wax rek ci sañse bi nga xam ne ay Aidara hmm. ah, moom la sañse tey Mamour <laughs> xaaral ma kiiwaat sax Babacar Ndiaye. Mame Mor élégance li mu def tey ci Mbagnione Aidara. Euh, laa bëgg ngeen wane ko nag bu baax a baax parce que Mame Mor élégance dafa jënd li nga ah, xamante ne nii moom mooy ah. euh, collection bu bees. tuddee ko li nga xam goo Gaynde Go Gaynde la ko tuddee. donc Go Gaynde waaye lu tax lu tax. seen sponsor bi. Hmm. solal leen yéen ñëpp jox leen t-shirt man ma balaa maa dem j'espère que dina ma jox t-shirt seen sponsor bi parce que sinon daf may stigmatiser. léegi RN collection euh, cadeau wu gagnant yi tey ci ngoon dinaa jël benn jox ko Sadikh Top ah. bu ma ko ko joxee ba noppi après nag balaa ngoon nga yónnee livreur bi mu yónnee moom bu gagnant bi dinaa jël euh, benn t-shirt gagnant jox ko ki nga xam ne moom mooy moom mooy Top ci ci bu ñu paree émission bi léegi léegi donc euh, Mamor élégance ah. donc Go la jénne donc lii mën ngeen ko commander yéen ñëpp mën ngeen ko amaat da ngeen koy commandé am na sax boo am na sax boo xam ne noir la boobu moom c'est extraordinaire maa ngi bañoon blanc la ñu defoon mais am na noir boo xam ne c'est extraordinaire version rouge bi ni mu ci mel euh, non non noir bi da ko exposé ca boutique ba <laughs> jàllo du sol yi jàllo mais gis na gis nañu génnee version Sénégal voilà ba pare boole seeg pins boo xamante ne nii saa waay macha ak col ma col bi. col cravate la bi col cravate la donc moom la jënd nii. donc mu nekk lu extraordinaire góo gaynde yi nga xamante ne collection bi moom 18 ans <laughs> fukki at ak juróom-ñett la am. <laughs> ay waay fay na micro mañoon bi te yàlla tax <laughs> loxo loxo ay da bu ràngati kii. bien loxo bu set. maam Mor élégance numéro bi loxo bu setee mu a bokk ak ay mag. joxel numéro bi. ñi soxla numéro maam élégance pour am ci collection Go Gaynde bi nga xam ne supporter gaynde yi ñoo tax mu defar ko sell na mën na dem fu nekk mën na ah. supporter également. Euh, te am na classe 77 103 52 17 ngay def. 77 103 52 17 mu nga ca Colobane ah. Mm. donc maam Mor élégance moo jaarati fii nii fu am solo fii nga xamante ne nii fii la mañoon ay dara. tëj na buñ ci noppee ñu dem daal di xool nag li nga xam ne moom mooy jeu concours Hélène Collection parce que Hélène Collection xam ngeen ne kaan bi yëpp moo ànd ak waa bët set di leen solol li nga xamante ne moom mooy euh, t-shirt euh, polo wala maillot équipe nationale ngir supporter ñi nga xam ne ñoom ñooy waa équipe nationale nee naa nag yéen yéen ñu ëpp wërsëg parce que yéen mën ngeen cee am te du ngeen sonn da dem rek télécharger application bi bu ngeen

di ngeen am ay ngañaay yu am solo ñi gaña tey si ngoon bu ngeen xoolee di ngeen rëccu lu tax bokkoo leen woon bële passé mais am ngeen sensu euh, gañe ba léegi li nga xamante ne ni moom mooy euh, yére yu am solo parce que moom yamul ci ay maillot équipe nationale ak i t-shirt kese waaye dafay jaay ay chemise ay pantalon kaki ay ensemble chemise ak kaki ay ensemble costume ak matériel électroménager ci kër yi moo tax tey ngañaay yi am nañ ci ñoo xam ne am nañ sax ay ensemble semis yoo xam ne jox na leen ko boole ci ak ay maillot équipe nationale ak t-shirt yu ñu mën a supporter moo tax daaw leen gaaw ngeen télécharger li nga xam ne moom mooy application RN Collection euh, dugal ko capture bi dugal ko ci 77 761 25 91 wala ngeen dem fële nga xamante ni moom mooy seen place nekk ci jëppal euh, ci rue euh, ci allée Serigne Babacar Sy en face euh, police su jëppal su ngeen fa demee rek wane li nga xam ne moom mooy seen capture téléchargement application RN Collection dinañ leen jox seen nga ñaay ci plateau spécial kan bi nga xam ne Seneweb moo ko organisé maa ngi jaajëfal ñëpp majoot ba ëllëg incha allah ak beneen gan gu am solo jërëjëf Mohamed doon am mbégte mag a mag doon bokk ci jotaay bu am solo bi di remercier bu baax a baax suñu invité di Sadiq Top di remercier nga ci li ma sol 103 la 50 17 à demain incha allah Mouhamed. merci beaucoup damay euh, daal di jox Aïcha Thiam mu tàggatoo moom it ba ëllëg incha allah. incha allah tout est bien qui finit bien. Euh, à demain allah di remercier encore une fois euh, de plus euh, Sadikh Top di leen wax rek bonne chance et bon vent di souhaiter tamit bu baax a baax suñu joueurs yi comme suñu lions yi moom bu ñu ko waxee de ñaan bi leen parc an suñu joueurs yi nekk fële ca Cameroun yàlla may leen ndam ci kaw Cap Vert 1-0 rek baax na <laughs> à demain incha allah excellente journée à vous. Aïcha merci beaucoup soxna si ba ëllëg yow it allah. waaw mais ngoon ngoon ultimatum amul parce que match bee tax. waaw yéen laa def sama heure mais profito balaa euh, sama doom euh, euh, sama doom ci si petite sœur Serigne Saliou mu am waaw. maa jeexal mu am un an jàll leen ma ko Serigne Saliou. Serigne Saliou un an la am joyeux anniversaire à Serigne Saliou. <laughs> Euh, donc moom li ñu ko joxoon ci waxu ci bés bi moom moo jeex xam nga. <laughs> ndeke yàlla ndeke yàlla <laughs> yàlla mën na lu ne yàlla dafa jeexal. ay li mu war a wax ci journée tey bi moom la yàlla jeexal. donc Serigne Saliou Serigne Saliou rek Mouhamed sama fans bi Mouhamed mi nga xam ne daa ñëw ba foire seet si ma ñu photo donc rakkam mooy def anniversaire joyeux anniversaire Serigne Saliou yàlla nga dund ah teral yaay ak baay yóbbu leen màkka ah sa dund gi am njëriñ lool yaa ak Mouhamed waaye nag yàlla na la Mouhamed raw ci lépp nga topp ci ginnaawam rek dégg parce que Mouhamed mooy sama fan dégg sëñ Sall maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax beneen anniversaire bi laay jaare noonu ñu xool ko laataa may jox Sadiq Top mu tàggatoo mhm. ah moom mooy maman Binta Diop euh, di ko souhaiter joyeux anniversaire maman Binta moom sama xarit la moo may toppatoo. Mhm. sa su ma nekkee koñ ba moo may toppatoo moo may defal lépp du ma mar du ma xiif du ma. du ma dara ah, waaw maman Binta <laughs> ba pare jàngkat la. Ah. moom nag sob bi sob bi sob gi jàngkat la. voilà fleur bi daa vraiment moom jàngkat la waaw dafa dem ba ci fleur bi fotow lii dëkk ba nii la ñuy fotow <laughs> maa ngi seen sama tey lii sébi ko taan lii mu nga fa ba léegi jógee ko fa même tabaski ba léegi dañuy dem rang ci studio bi rang ci studio yi fay ñuy photo waaw loolu aada la lii tabaski la woon donc lii aada la ah. sébi ko taan ah, tabaski ñu ah. ci pot de fleur yi woo photographe bi ci kër gi fay ko téeméer téeméer mu photo ñu dem tiire ko donc loolu la aada la fa macha allah voilà du question du question dañoo méngoowul ak jamono mais aada la si ñun nga dem ko taan séeréer ñoom badaaw ak ñoom ñooñu ñoom ci event si photo la nga dem nga maxu photographe rang tëbaski gars yi dañuy rang foofu rang bu métti goo xam ne moo ñëw buntu buntu kii bi studio studio studio mu ngi am ba léegi Sébi waaw. yow Grand Dakar bii rek am na studio nga nekk studio xam nga wala bokk bañ a bokk yow. non mais attends man sama téléphone laa ko doon léegi. ayca maman Binta joyeux anniversaire kontaan naa ci yow dégg nga yàlla na sa dund bi am njariñ nga màgg tekki ba teral yaay booy ak euh, famille bi yëpp euh, c'est de la part de toute la famille Diop également de toute l'équipe euh, de Seneweb ñoo lay souhaiter joyeux anniversaire. merci beaucoup Sadikh maa ngi lay jaajëfal yow tamit ci wuy si bi am na solo. di la jox digg daje beneen yoon. kër gi moom sa kër la waaw Seneweb moom wax dëgg neex yàlla sama kër la xanaa j'en profite rek pour rendre hommage ki nga xamante ne itam bokk na ci suñuy référence même dans le parti te ñu tuddee ko sax d'ailleurs suñu permanence. Mhm. muy Mamadou Dia. voilà euh, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Mhm. moom li ñu mel tey nga xam ne moom la ñuy xeex moom la doon xeex. Mhm. moom dañ ko mujjee fexe ba xañ te Mamadou jaa su may wax souvent damay faral di wax rek naan. tëj nañ ko de mille 1962 à 1973 foofu la ñàkkee daanaka ay bëtam. Mhm. ak mu ci nekk ah. ñaari yoon la ko soxnaam daan jël seet si pour 30 minutes en présence de garde. Mhm. muy nekkin wu jafe ca gu tàngoor lool loolu la ko Senghor tegoon. Mhm. alors que bëggoon rek Sénégal développé wu. ñun tey loolu la ñuy xeex pour mu bañ a am. Euh, di euh, remercier également ñi nga xamante ne ñooñu seetaan ñëpp. Euh, am mbégte bu bëree rëy boo xamante ne vraiment euh, ñëw nañ ko tey bokk ko ak yéen muy une équipe jeune boo xamante ne vraiment yéen a ngi def ci terrain bi souvent ak yenn yi benn liggéey bu am solo. Mm. li ma leen ñaan rek te fa daanale te loolu léegi dinaay jël fu ma dem ci plateau dinaa koy ñaan journaliste yi. ak ñi nga xam ne yi nag looloo ma métti mooy. Mm. baax na. Euh, te bis bu ñu ko defee lii may wax. Mm. bu boobaa mun nañoo ñëwaat ñu débattre. lu Ousmane ko wax. nañ déglu nam ko waxee. fa mu ko waxee ensuite ñu dem def recherche xool balaa ñoo interpréter parce que journaliste ñun ñëpp ñoo ko bokk wax dëgg neex yàlla li may wax nii yëpp nangu ngeen ko. Mm-hmm. mooy nga xam kii li mu wax lu mu doon. Mm-hmm. pour parce que le rôle du journaliste mooy donner information la bonne information. nekkul faral kii faral kee la bonne information bu dee Ousmane dafa wax ne par exemple Macky Sall jël na suñu 10 000 milliards le journaliste son mooy fexe ba xool fan la ko waxee ak ci ban côté est-ce que mën na ne bu ne mu ñëw ne effectivement bi ñu wëree lii lii jàpp nañ ne nekk na. sur la base de ces chiffres là mais nag jugé wuñu lii la am bu amulee ñu ne ah déet Ousmane ñun bi ñu wëree fii xool xool xool xool gisuñu ko kon nañu teg ay jox ay firnde yu wóor. kon xanaa loolu mooy. te tëddee bu wëree gis ne Ousmane Sonko li mu wax amul. bu ko waxee yéen journaliste bu niil ngeen koy traité malheureusement. non non non non ça dépend ñu dugg ci débat boobu mais malheureusement bés bu journaliste gëstoo gis ne Ousmane Sonko li mu wax. amul wala wérul. ñëw wax ko ci plateau yéen ñëpp li ngeen di njëkk a wax mooy dañ koo jënd ak journaliste boobu tekkul dara ñun xam nañ ko <laughs> <laughs> ñun xam nañ ko te nag te nag réew mi suñu amee benn njàqare la plupart des sénégalais j'en profite aussi pour wax la ko mhm. ci suñu démocratie dëkk bii nii mhm. par rapport ak opposition bii ñu am nii c'est pas seulement Ousmane ko mooy que ne journaliste bu àndul ak yéen xalaat ngeen diaboliser ko jaxase ko askan te loolu aussi il mu arrêter seetlu ngeen ne parce que ñëpp mënuñoo ànd ak yéen xalaat est-ce que seetlu ngeen ne ci plateau souvent bu ñuy échanger man ak yéen. Hmm. yéen bu ngeen waree poser question wala ngeen développé dama naan tekk ba ngeen pare. dama leen koy ñaan rek. waaw lii mu wax nii. c'est important. peut-être duñ dugg ci débat parce que c'est presque la fin de l'émission. Hmm. mais liñ ci doon bëgg a wax mooy. Hmm. c'est une affirmation boo xamante ne xam nga ci lan la ko wékk. mi ngi ko wékk ci des faits yoo xamante ne jot na fi am. pour diir que bis bu journaliste defee sàngam sur la base de preuve ñun dañu naan euh, dañ ko jaay dañ ko jënd am na loo xamante ne yow contrôlé wu ah Ahmed est-ce que xam nga ne ki nekk ci internet bi nekk un sympathisant mm-hmm. nekk un militant qui qu'il soit dans certains égards yow contrôlé nga ci appréciation bi muy def ci sa émission ak li muy wax non man non xaar xaar ma ñëw man yéen seen réaction ci plateau bi non yaa ma laaj yaa ma laaj moo tax ma waxaat moom laay wax léegi nag fi nga xamante ne réaction laay wax loolu nag moom amul et je et j' insiste de moo jaay nga jël benn journaliste yàq ko lu mel ne dañ ko jël parce que wane na wane na wane na seen wujj seen wujj aussi léegi est ce que journaliste bi amul droit wane wujj Ousmane Sonko wala ku muy xëccool ba bu ko defee mu am kooku nekkatul journaliste wala baaxul yow animateur nga dama lay expliquer. yow aussi bu dee journaliste nga ma expliquer la képp ku ñuy seetaan fii jusqu'à la fin des temps nag laa lay wax. amul journaliste Sénégal bu osé jàkkarlook man ci plateau li ma wa teg nga teggi ko quatorze jours de campagne dix jour yi nga jox ko benn candidat ci say une ba pare. à la télévision nga invité huit invités ñépp nekk Benno Bokk Yaakaar amul benn opposant boo xamul journalisme loolu du journalisme yàquma ko lu mel ni xamee déedéet moom moo deful liggéeyam. da nga maa laaj. non non dama lay dama lay tontu dama lay tontu dayoo ma wax pour man explication non non xaar leen non non. laaj laaj ma la foofu damay tontu ci li ngeen wax damay tontu. ils ont dit que c'est des émissions commerciales. ça ça c'est-à-dire un politicien boo nekkoon directeur de pub un politicien ñëw fay sa une. pendant 14 jours wala pendant 15 jours wala pendant un mois pour nekk sa fay la ko en tant que directeur de publication da ngay bañ. léegi dama leen wax. déjà tontu ma tontu ma da ngay bañ. une moom kenn du ko jënd sax déjà en matière en matière commerciale bien sûr. boo paree dama lay tontu ñaar lay tontu dama lay tontu dama lay tontu da nga may laaj. ci journalisme nga may laaj. dama lay tontu ci journalisme. du yoon te dinaa la wax fan laa ko teg. yow xam nga dafa journalisme. non ndax da ngay bañ ndax da bañ. waaw waxuma du yoon de du yoon ak du yoon moom àggu man lu dul yoon du ko def. pour faire simple. d'accord dee nit ki yow te lu dul yoon nga def ko dangay ngay bañ ak da ngay nangu ci question bu la jël loolu da ngay dugg ci wàllum éthique loolu moo tax ma ne c'est non éthique gis nga na défendez pas le diable non défendre non non dama lay wax moom laa lay wax ay data mii laay wax moom par exemple bi mu naan yàq nga ko lu mel ni xamee sàngam sàng ne défendez pas le diable son attitude est diabolique sur la base de l'éthique et de la déontologie dañ koy tere en journalisme et loolu laa attaqué bi ma ko attaqué des journalistes ay kilifay journalisme woon nañ ma di ma remercier fi mu ne nii buñ paree léegi léegi léegi léegi li may wax nag bu dee amulee bu ñu paree sax bu émission bi bu ngeen amaatee émission Sadiq Top joxuñu preuve bi bu ñu paree naa leen jox preuve journaliste kilifa yi nga xamante ne woo nañ ma di ma remercier ci attitude waa ji nga xamante ne ma attaqué ci parce que ñooñu xam nañ luy journaliste. li ñu lay jox comme justification yow d'accord ci que xanaa xamu leen lu journalisme da déglu ma expliqué dama ne bu nekk bu nekk moom c'est ci benn bu nga xam tey dafa am bu dee dañ laa jox xaalis pour nga wane li diw di def yaa ngi dégg ma wane yow li ngay def en pleine campagne parce que day revenir ci li nga xamante ne moom mooy service public yéen est ce xam ngeen ne mission de service public ngeen di def mm-hmm. te mission de service public day am équilibre mission de service public mooy da nekkal fii nekkal kee même kii bu la joxee xaalis nga waneel ko kee war nga koo waneel même bu dee joxu la xaalis parce loolu mission mission de service public journalisme laa lay wax lii amul ay affaire de kii moo ma fay fayu ma ku xamul nag mooy wax dama leen wax li nga xamante ne moom mooy yoon en journalisme et en. l'information euh, yaa ngi dégg ñun ñëpp waaw non non xaaral rek xaaral xaaral mais boo ñëwee ci rédaction bi aussi ci yenn la nga jàng ci école ak la nga fay fekk souvent c'est jamais xaalis waaw léegi nag loolu laa la bëggoon a justement dama la bëggoon a wax waa ji li mu jàng c'est-à-dire mañoon ay daak yow ak keneen ak keneen li ngeen jàng ak règle yi nga xamante ni moom la wax li may wax moom la service commercial wala direction financier financière bu Seneweb teg wala direction Seneweb d'une manière générale teg loolu mënoo lu dul tënku ci. waa léegi dama leen wax foofu laay wax dama ne. par exemple 2S bu ne day jaay commercialiser émission am journaliste bi ak lu mu bëgg éthique éthique te émission bi s di ko jaay di ko présenté loo man lu ñëw liggéey si ndax bu liggéey si wul 2 bu boobaa. il faut qu'on repasse notre de presse c'est-à-dire liberté ñu ñu non xaaral sax balaa maa ñëw ci affaire liberté foo ñu xoolaat am na koo xamante ne. Hmm. en tant que journaliste en tant que organe de presse bu dee mënu koy assurer mérité ñu ko jox euh, euh, euh, li nga xamante ne moom mooy li ko mën a may mu mën a gérer organe de presse. parce ko parce que daa ay normes yoo xamante ne moom nga war a régler bay paramètres yoo xamante ne boo ko gérer ba pare tin lay mën a jox li nga xam ne mooy organe de presse man ba maa bëgg xaalis rek ba damay. xalamal kii parce que fay na ma ma waneel ko li ma bëgg mu wan alors que moom beneen adversaire bi aw ma équilibre ci moom loolu mooy journalisme fan lañ ko jàngee ak fan la war a amee. du dëgg du yoon léegi nag ki nga xamante ne li nga xamante ne moom ngeen di moom la def. muy li muy wax léegi. Mhm. te tudd ko jox leen ay date ci li nga xamante ne moom la def ci une boobu noonu noonu mais ñëpp tënku nañ ne la mu def te tegu ko fenn. te li gën a garaaw mooy ndeysaan ay journalistes yoo xamante ne ñi nga foofu ñoo may woon ne ma way waay jërëjëf ñu dañoo amoon gàcce ci lim doon def loolu du journalisme loolu nag ku ko def ñu ne la tu es un vendu. d'accord loolu ku ko def ñu ne la amoo éthique. ku ko def ñu ne la amoo déontologie ku ko def ñu ne la yow mérité woo toog ci plateau. naan yaa ngi xam nga li a grave dama lay wax benn affaire dama lay wax leneen daal di def laay faal ak mooy bëgg ah, ah, ah, Aïda bi mu bi mu defee loolu def ay euh, mbir yoo xamante ne ba tey journalisme da koy tere tey laa la est que xam nga ne yow période campagne bi ba ba muy jeex amoo droit wax waxi sondage loi bi da koy tere moom mu ñëw wax waxi sondage moom journaliste bi est-ce que xam ngeen ne yow pour nga tudd sondage même bu dul période campagne kenn nit nekkul moom ngay tudd institut ngay tudd moom kenn nit la tudd yaa ngi dégg. Mm-hmm. maanaam yiñ ko mën a attaqué moo bari léegi nag. Mm-hmm. koo mënti doon. Mm-hmm. ngay Sadiq Top ak koo mënti doon. ci journalisme dans ce pays là li ngay def. c'est apprécié à l'aune des actes yi nga xamante ne moom ngay posé léegi moom mi nga xamante ne moom moo doon moo dirigé loolu yépp pendant quatorze jours de campagne dix jours yi nga jox ko kenn nit tëjee ko tëjee ko def ay interview wax ci moom wax léppam rien pour moom ay adversaire am li jëntuwoo leen nga def ko également ci fi nga xamante ne moom mooy ca télévision ba nga nekk émission ya ngay gérer def loolu yépp période campagne jour vote bi nga ñëw ne tu es neutre da ngay analyser les euh, les enjeux jour vote bi nga ñëw ne tu es neutre da ngay wax li nga xamante ne moom mooy njariñal euh, élection yi. c'est comme ça que ça doit se passer Aïda. suñu mën dee waxante dëgg. bu bu ñuy conscientiser dañ koy boole xam nga man mënuma am damaa jeexal sama temps wax. <laughs> maintenant li ma leen bëgg a wax rek xam nga Aïda. bu ñu temps bi bu ñu temps bi tënku doon. beneen jour parce que le problème créé benn thème boo xam ne c'est les politiques et les journalistes pour man problème bi gën na gën na profond sax que que que ñu ñu généraliser man en ah, journaliste gis nga dans ce fait là. journaliste ñu tëj ñu tëj ñu tëj last bi last bi. <laughs> fii laa koy wax journaliste yi. Mhm. ñu seen responsabilité. yëpp nag dinaa la wax li tax jëluñu ko dans parce que mhm. liy yàq presse bi mu ngi ci presse bi ñu gis ko ne mu ne fàng tey jii nii li nga xamante ne waa ji def na ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa ci presse bi yi ma woo. Mhm. di ma wax ne jërëjëf. ñoom ñoo waroon a génne organiser wu génne communiqué ne lii du yoon. il a fallu ko ma wax ko. pour ñoom ñu taxawaat daan ne ma waxi suuf <laughs> merci beaucoup merci beaucoup Sadikh merci euh, pour aujourd'hui demain dinañ tasewaat fii nga xam ne insha allah mooy euh, plateau bi defaat beneen numéro bët set di leen jox rendez-vous euh, ca kanam tuuti ak gars yi nga xam ne seen tool dafa way muy waa tolluwaay les matures ànd ci Mouhamadou Diallo ngoon ga début d'après-midi dinañ ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy jour de match war cee ànd li nga xamante ni moom mooy équipe bi yëpp ñoom ñoom nu tuddati waaye kaay ree général Kairé donc dina ñëw ànd ak Pa Omar Keita ak man ci plateau bi ñu décortiquer waat li nga xam ne moom mooy avant match bi euh, la première mi-temps ak l'après match euh, cadeau yu bari yu ñuy jox euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy teewal fii ànd ceeg école football bu max ak public bi fii ñëw yëpp ngir ñu seetaanandoo li nga xam ne moom mooy match équipe nationale bu Sénégal quart de finale contre huitième de finale contre Cap-Vert à partir de 16h allah